wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin al amin wa ala kulli alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yu tedd yi nuy seetaan ci seen émission plateau bu rafet bi di wareefu Ramadan te nekk ci àdduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen ziyaara tabaarakallahu di balu àq ñëpp dibal baal ñëpp àq tey ñaan borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne kattanam amul fu mu yem mbaaxam amul fu mu yem ñeewantam amul fu mu yem yërmandeem amul fu mu yem mu boole ñu ci yooyu ñeewant sunu réew réew mii ak réew yi yi fi nekk lëmbe ko tiital nit ñi borom bi nga xam ne léppam ci loxoom su ko neexee diggante xef ak xippi mu soppi ci lu mu ci bëgg a soppi yàlla nañu teggil natt bi te yolomal suñuy jéng ba ñuy doxi waat lañ daan doxi te bañ a mel nanu meloon ci lu wuuteeg li mu bëgg yàlla nañ ko yàlla defal tabaarakallaahu di nuyu suñuy kilifa diine yëpp di leen ziyaara di nuyu kilifa adduna yi ziyaara leen di nuyu doomi daara yëpp nag te di leen baalu àq di leen ñaanal yàlla nangu jàng yi nangu zikkar yi nangu xalaat yi nangu koor yi nangu jaamu yi yàlla na ko yàlla def tabaarakallaahu di nuyu ñu ni bokkal nag plateau bi eh, jiital ci Seyda Fatou Binti Diop tabaarakallaahu di ko wax ne ah Seyda eh, macha allah eh, macha allah macha allah xalif xalifa mbergaan rek. macha allah kon nag eh, Zey Jamil Zey Jamil. sukkuran sukkuran allah yu jaazikal xayr. Zey Jamil yal na ko yal na ko rappal ak sago. amiin amiin tabaarakallah di nuyu Oustaz Assane bu baax a baax a baax a baax. di nuyu nag suñuy téléspectateurs. Eh, yu yu góor ak yu jigéen. ñi nga xam ne jamono bu nekk ñu ngi wéttalinteeg nun ñi nekk ci adduna bi yëpp mais di jottali nuyoo benn doomu daara. Eh, Serigne xalifa Niang di doom ci Alhaji Tidiane ñaŋ mhm. nekk ca Saint-Louis ñoom oustaz Yahya ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun ci daara ji mhm. Seyda di jaal nag sunuy sunu bopp ndax suñu xale boobu nga xam ne moom laa doon wooye ñi miin waxtaanu fajar daan nañu dégg may wax ne ci xarala gi ki ci nekk mooy Abu Muhammad ñu gën ko miin ci jaase xale yi mu doon nekk daan ko wooyee jaase o sunu boroom daf ko jël yàlla na ko yàlla teeru yàlla na ko yàlla teral ñu miinoon ci moom ñett mooy mënoon liggéeyam mm-hmm. miinoon nañ ko ci moom mm-hmm. miinoon nañ ci moom it disponibilité ci côté liggéeyam mm-hmm. loo mos wax rek danaan amul problème dinaa ko gérer tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla yërëm mu ngi noonu ci ngeen di ko gis ci écran bi tabaarakallaahu euh, miinoon ci moom tamit jaamu yàlla ndax xale bu ndaw bu tol nii mhm. yaroo ci këru diine sa taaw nga tudde ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, loolu lu rafet la moo tax ñu ngi koy ñu ngi koy jaal groupe Futurs Médias bi mu jóge mais di ko jaal surtout nag Boubacar Diallo moom mi nga xamante ni bii eh, dañ daan liggéeyandoo ñoom ñaar comme ni mu mhm. daan liggéeyandoo ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ko njëggal ñaanal ko tabaarakallahu yërmande ñaanal ko li mu bàyyi ci ginnaaw yàlla mosu cee teggi loxoom waaye mu gën leen yii rek sutura ak teraanga tabaarakallah di ko ñaanal tamit ñeneen ñi nga xam ne yàlla jël na seen bakkan yàlla na yàlla euh, yeesal seen yërmande ñii feebar yàlla teggil leen ko ak façon feebar bu mu mën a doon façon feebar bu mu mën a doon yàlla na yàlla teggi ko ba mu set yàlla yéekat ci ay maqaama ci baarakallah macha allah di nuyu nag euh, doomi daara yëpp Oustaz Assane mm-hmm. euh, bëggoon wax yi ma gis muy ñëw. ma bëggoon ci def benn attire benn attention. mooy euh, nañu moytu. ñu utiliser ñu. ñun doomi daara yi ngir xeexe ko ay tariqa. moo xam plateau télé la. moo xam émission rajo la. moo xam ku nekk ci sa euh, téye sa caméra di wax la. nañu moytu nekk arme. en tant que ay doomi daara ñu ñuy fénqale ngir ay tariqa boroom tariqa yi bëgguñu ko ñi nekk ci tariqa yi te nit yi bëgguñu ko kon ñun bu ñu nekk ngànnaay ñu ñuy fénqale tariqa parce que mag ñi waruñ noo gën a gore mën nañ noo jur ci ngor mm-hmm. jur ñu ci xam-xam mm-hmm. yar nu jàngal nu mm-hmm. wante nag waruñ ñoo gën a gore te gën a gore bi mooy yor nañ ko sàmm ko ba dem te dara yàquwul bu ñu ko fi bàyyee ñun ñu dese ko waruñoo fexe ba mu yàqu dama mës a dégg say Cheikh Ahmed Tidiane yi almaktum mu ni dafa am ku ñëw ci moom wax ko luy fénqale tariqa yi mu ne nañ ma toppal kooku bañ ko ko toppalee mu dem ci benn kër Touba mhm. dem gis xalif bi mhm. ndekete proposition bi mu ko defal booba la defal kooka. pour wane ni am na ñoo xamante ni ba léegi. du ñu tekki seen ngemb. ñu ngi koy jël di ko fénqale. kër yi sëñ bi li sunu maam yi bind ci xam-xam. ci leer. ci yar. ci jubbanti. ci jubal mën nañ koo waxtaane te ñu mbëkkanti. loolu daal bëggoon naa ko mu nekk benn cri de cœur. ma wax ko pour ko ñu jël suñuy matukaay. bu ñu ko nangu ku ñu ci woo ci plateau. demal jàngale la nga war a jàngale te bañ a tas pénc bañ a fénqale ñu war a ànd loolu daal bëggoon naa ko wax Seyda macha allah macha allah oustaz euh, am na solo yow moom saa yoo waxee rek ñu bëri daan ci gàggantiku auzu billahi samiil alim min alsheytani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah mm-hmm. wa nusalli wa nusallimu ala man arsalahu rahmatan lil alamin wa jaala diinahu wa shariatahu xaalidayni hudan linnaasi ala marril qurun mbokk yi nga xam ne yéen a ngi jàkkaarloog ñun góor ak jigéen comme ni ko oustaz Mor waxee rek maa ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi ñu sof rek suñu nuyoo rek ci nuyoo oustaz bu nuyoo rek doy na te nuyu na ñëpp macha allahu taala. di leen fàttali rek bii xam naa miin ngeen ko muy gel bi rek fu ñu toll xam nga sa laalaatal barkeelu bisimilah sa Xasan ay wax bii moom na nekk toujours suñu àndandoo fu ñu mën a nekk rek mhm. su su palaato yi nga xam ne ñëpp ak ñu bëree koy bokk ndax da ngay toog jóg sa morom toog mhm. micro yeeg macha allah su suwaa Euh, techniciens yi nga xam ne ñoo ci nekk ñuy def nii rek bu ko defee lii moom am na solo ndax euh, mbas mi moom man fekk maa ngi dégg rek kaa euh, rek man wax dëgg yàlla gis ngeen sax temps yi maa ngi maigrir ndax wax dëgg yàlla saas man yëf yi daal ñemewuma ko rawatina nag ñun ñi nga xam ne ëppal dañu cinquante ans jàpp cinquante cinq ans oustaz Mbangom Cissé buñ ko doon laaj mu ne ma Seyda jigéen du wax âge am nee na rek ba passé naa cinquante egg gu ma soixante nee na toujours daa achara sanawaat yooyu. nee na ci diggante boobu xajal rek. su may def su may def sama anniversaire chaque année rek ma jënd man bu ñuy jënd bouse bi rek man ne 40 ans laa am Mouhamed ne ma boobu la gën nekk xale mu ne ma maa. xanaa jàng arab seen seen seenu compté quarante la yem <laughs> ma ne ko ndax la mu ne ma yow mais toi là chaque année 40 ans ma ne ko waaw ma jigéen du passé 40 ans. su ko defee nag bu ñu waxee ne oustaz Mor ñun xam nga ñun nag suñu fit dem na. Hmm. ndax mbas mi suñu waxee rek ñu def pour pourcentage su médecins yi docteurs yi ak professeurs yi ñuy kii ñu ne xale yi amul problème jeunesse bi itam bu leen dalee waaye à partir de 60 ans jëm ci kaw. ñooñu moom bu leen dalee rek amul ba ñi ciy rëcc daal du bëri. yàlla sàmm daal di wax ne France gis ngeen la fa dee amerique nangam dem ci Europe asi wax yëpp. Mhm. mais nañ ñu dimbali ñun tamit dara sax suñu xel. Mhm. daan nañu wax dëgg yàlla dee nag yàlla moo ko yor. Mhm. yàlla mën na jël bu man la yamut bi say fi du ñu ngi koy wax ku deewul si lii dee si leneen te ñu ko yàlla xoola tey suñu doom bii jaasi ñun ñii ñëpp ñoo ko mag tey yàlla jël na ko ndax ci maladie bi la ko jël jëlu ko si lii ak ñeneen ñeneen ñeneen ñoo xam ne ñu ngi génn àdduna kon ñu dalal suñu xel ne incha allahu taala feebar bu wàcc rek yàlla wàcc na lu koy faj ñu ko xam xam nañ ko ñu ko xamagul xamaguñ ko waaye dinañ wér waaye nag ah ñu def al wiqaayatu xayrun min al ilaaj comme dëkk boo xam ne dooleem bëriwul te gis ngeen ne presque léegi mille et quelque yàlla nañu yàlla diggal dimbali ba buñ ko weesu ñu si génn àdduna itam yàlla yemale ko fi te yàlla yërëm leen waaye ñuy wax ne masque yi ñun léegi lañu ñu gind parce que dañu am euh, vraiment mm. respecté nañ normes yi waaw normes yi ñu ngi koy respecté mais macha allahu taala oustaz bi may ñëw maa ngi la koy wax sànq gis naa ne mag ñëpp ñu ngi takk masque waaye nag bu ñu fàtte njaboot gi. Mm. parce que njaboot gu ndaw gi itam tout tànk yi ñu bëree ngi leen bàyyi ci mbedd mi. ba mm. léegi ñu ngi leen bàyyi ci mbedd mi waxuma mm. nag ne ñoo ñu ay taalibe lañ parce que duñu taalibe mais ñi dëkk ci kër yi la. ndax booy jaay. nekk sa koñ buntu koñ di jaay sa ñetti doom ñëw ñeent ku nekk toog di waxtaan ak yow wala di la laaj dara. Hmm. wala xale bi ñu yónni ko ci boutique bi mu dem. Hmm. takkul masque. Hmm. parce man xale yu bari da ngay gis ñu takk masque. rawatina jigéen ñi itam ñi nga xam ne ñu ngi boot seen doom yi. seen doom yi tamit prévoir ñu leen dara te bañ leen a génne moo gën. du ma ne nag kenn bu mu génnee ndax xej na mun na am kooku amul kenn ku mu ko bàyyee waaye daal ñu góorgóorlu encore gis nañu mesures yu bees yi nga xam ne ñëw nañu ñuy ñaan jigéen ñi marché bi. kuy dugg dugg loo xam ne di nga ci mën comme tey lundi nee nañu tey lekk lundi la mercredi ak vendredi. mooy mhm. lëndi ak te altine ak àllarba ak àjjuma. Mhm. kon ñëpp bu ñuy dugg ñu bàyyi xel si loolu. macha allahu taala waaw ñu moytu daje bi ñu moytu daje bi. Mhm. waaw macha allahu taala xam naa kii. Euh, euh, nu mu tuddati yeneen jours yi yeneen ñaari jours yi samedi ak dimanche yi duñ kenn du ubbi. Mm-hmm. parce que loolu yëpp oustaz du dara rek bu dul ñu moytu. Mm-hmm. feebar bi nga xam ne macha allahu taala moo wër àdduna bi yëpp. Mm-hmm. parce que il faut que ñu moytu ko. loolu di di jaale bu baax nag. jaase ak waa di ko jaale Alaaji Assane Gueye ndeysaan mu ngi may fàttali Vincent bu ma doon def émission ndeysaan léeg-léeg ma tëdd di nelaw di xaran mu mu continuer di ko enregistré moom it yàlla na ko yàlla yërëm waaye nag oustaz ñu may ma ma remercier mboolem ñi nga xam ne démb ñu ngi ñëwoon bokk ak man ñaan gi ñu doon ñaanal ajaa Guèye Adja Tuuti Guèye di ko jàllale waa juróom bu jigéen Ndey Faal ak boroom këram ak ñoom ay satu ñaa ñëpp di leen ko gën a yeesal jaar di leen wax jërë ngeen jëf ñi ñëwul ñëpp dañoo yónnee ay kaamil umu salama ittër démb la doon summi parce que doom borom këram bi sëriñ Habib Daat umu salamata bu Cerno Muntaga moom it xam nga borom këram dafa génnoon temps yi mhm. waaye nag nee nañ toujours bànneex ak naqar mooy ànd mu am sama doom ju baax mhm. ju ñuy wax xalifandoo yi nga xam ne wallaay portable yu baax yi yëpp moo koy moo koy moo koy joxee ñu koy mm. wax maître ëppal la ñuy wax xaw ma. naka kii ñuy jaay téléphone yu yu kii yu kii yi téléphone yu cher yi. <laughs> Ah, yow ko yoo xam yow yaa ko xamul ci Sénégal waaye àdduna bi xam na ko. oustaz téléphone yi laa wax. waaw dafa am doom waaw dafa am doom bu jigéen barki démb démb. daal di ne tuf daal ne Seyda Fat Bintou Diop waa waajuram yëpp a ngi dund ñëpp a ngi dund mu ne ma maa dama doon ñaan yàlla rek am doom bu jigéen tudde la ko may ñaan a xalifa yaag sa soxna ant sa doom jooju yàlla na nañu dund ba ma ba mu tari al alquran ci sama daara loolu rek laa laa ko ñaanal ndax euh, loolu dafa neex ci xol oustaz euh, mu nekk surprise boo xam ne mm-hmm. yeneen faat bintu yu jiitu yi nag ñëpp ñoom ñëpp daanaka fi mu nekk dama leen dégradé mm-hmm. fi faat bintu ndoo yi rek laa jël ci sama xol kon delloo leen kàddu yi euh, jox asan mu nuyoo mm-hmm. tey moom dinañ dugg si thème boo xam ne dinañu dina jokk ak thème bi nga xam ne ajjuma yow demande explication vendredi bi jëlagoo ko oustaz moor aboon na ngànt mais yow da ngaa daw vendredi liggéey. ma ko de ma man ma nuyoo ma ñëw. <laughs> waaw waaw nuyoo la alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. ginnaaw bi ñu santee yàlla subhanahu wa moom mi nga xam ne si mbaaxam la ñu fekkee waat weeru koor gi. mën a ñëwaat teewaay jataayu wareefu Ramadan bi ci atum deux mille vingt di mille quatre cent quarante si hijriya ñu ngi julli di sëlmal si gën ji mu def Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziar bu baax ñu ñuy topp ci réew mi ak ñi nekk bitim réew ñaanal ñëpp yàlla suñu borom subhanahu wa taala defal leen jàmm defal leen xéewal defal leen sutura defal leen teraanga àdduna ak àllaaxira si darajey Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak barke weeru koor gi ñaan yàlla lépp lu ñu si jaamu yàlla yal na ko yàlla nangu yàlla suñu borom subhanahu wa taala def weeru koor gi nekk si ñu njot si safara ñun ñëpp waaye si barke koor gi yàlla jële fi li nga xamante moom moo di Covid 19 bi di coronavirus di mbas mi te buñ ko ñaanee yàlla yàlla dinañu ko defal incha allah ndax moom moo ne woon udu uni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen kon yàlla ñu ngi lay ñaan mbas mi nga jëlal ñu ko fi ñi mu dalagul nga musal leen si ñi mu dal nga saafara leen ñi mu yóbbu seen bakkan ak képp ku faatu rek même bu dul si mbas mi yaa nga ko jéggal yërëm ko di jaal bu baax comme ni ngeen ko defee suñu xarit euh, Aliou Diassé ndax maa ngi ko bu ma daan nekk RFM ak oustaz Taïb Socé si tafsirul Quran ndeysaan moo daan yor machine bi lu bari. Mhm. te bari waaye ne lu ñu daan monte foofu moom moo daan am taxawaay boobu. kon jaase ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljana si barke alquran bi ndax moom ku bëggoon tafsir bi la fa tabarakallahu macha mhm. allah loolu moom témoignage la ba nga xamante nii bu ñu ko waxee fii ëllëg incha allah mën nañ ko waxaat si kanamu borom bi te du nekk la nga xamante ni lu ñuy dute benn yoon la weer bii nga dem di weeru koor yàlla na doon sa yërmande yàlla na doon sa njëggal yàlla na doon sa njot si safara ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax di jàll sa njaboot yàlla suñu borom subhanahu wa teg si sa njaboot gi loxo yàlla sañ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def lépp la nga doon liggéey ngir daan sa doole dundee sa ñàq te mu lew yàlla nga ko fekk sa fa nga xamante ni fa nga jëm tey ndax daf ñu jiitu rek waaye dañ koy fekk sayda yàlla na yeex yàlla na yeex yàlla na yeex kon di ziar bu baax kilifa diina yi nekk ci réew mi yëpp di leen ñaanal yàlla comme ni ko oustaz Mor waxee daan naa dégg maam Abdou radiallahu anhu muy wax naan at turuqu kulluha mustanbatatun min al kitaabi wa sunna tariqa yëpp si alquran ak sunna la ñuy dem di tibbee moom mooy seen naanuwaay moom mooy seen source fa la ñuy dem mooy balluwaay ba kon bu ko ay mag indee ci réew mi ngir gën a yaatal diina ji ngir ku si nekk gën a xam sa farata gën a xam sa sunna yaakaar naa ne li taxoon ñu indi ko fi di ngir ñu koy dóorante déedéet ndax penku bi benn la mooy kaaba gi fatiha bi ñuy jàng benn la alquran bi ñuy jàng benn la kuy tàmbalee julli doo wax asalaamualeykum allahu akbar ngay wax booy sëlmal doo wax allahu akbar aleykum ngay wax te ñëpp ñun ñëpp ñoo si bokk yam ku génn àdduna yàlla na yeex bu ñu lay jullee yaakaar naa si li ma xam man ñeenti kàbbar lay doon gisaguma fu ñuy def juróom-ñaari kàbbar wala fukki kàbbar ak juróom si li gën a ëpp bokk kon loolu dafa nekk la nga xamante ni lu jar a bàyyi xel la li ma bëgg a wax foofu rek mooy ñun ñëpp ñoo bokk li nga xam ne moo di ay usul xëy na furu yi rek la ñuy wute maanaam fond bi ñoo ko bokk forme yi moom mënul ñàkk ndax ixtilaaful ulama rahma la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon kon nañu gën a góorgóorlu surtout ndaw ñi ñu xam ne mag ñi dañ fi indi woon lii ngir ñoŋal diine ji waaye indi ñu ko fi woon pour di ko xeexante wala di ko defante concurrence wala leneen ndax ñoom ñëpp seen yitte mooy woon fësal liggéeyu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku si nekk li mu bind si sayduna muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam nga war a xam ne yitteem yonante bi la woon sallallahu alayhi wa sallam du woon leneen kon nañu gën a góorgóorlu si wàll woowu ziar bu baax sayda ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér oustaz Mor itam ak waa kër gi yëpp fa tabarakallahu sayda ajjuma nag xam nga alxames euh, waaw alxames alxames ñëw woon quartier général su ma juumul oustaz Mor moo ñëwoon su ma juumul ajjuma mooy woon le premier mai te xam nga premier mai mooy fête du travail keroog bi nga pare bi ñu jokkoo téléphone nga dama doom bi may liggéey juddoo <laughs> waaye dëgg la <laughs> dama liggéey ba toog fii loolu lépp dëgg la waaye xam nga léeg-léeg comme dama ne premier mai la ma ne ah xëy na. bu ñu teg ah waaw naa premier mai rek foogoon naa ne sax corona bi day jël fête jour premier mai waaye moom keroog la gën a liggéey yàlla nañu ko fi yàlla jëlal te si barke benn seconde rek ma nuyu sama benn jigéen astu wi ni bay astu maa ngi lay nuyu di la ziar la ñaanal yàlla yàlla gën la dëgëral ak say wéyjur yàlla sàmm la aar la ak mboolem jullit si daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak barke tabaarakallah macha allah ah Seydou Hassan loolu la xam nga mag ñi mhm. mag ñi dañoo góor góorlu mhm. dañoo góor góorlu mhm. def seen yitte marqué seen empreinte ci yiw ak yiwal ba bàyyi wu ñu fi kàddu bu ñuy ñaawlal loolu tax rek may def alerte bi parce que yenn saa yi nit ki day am flair. day am flair frasa ngay jékki-jékki rek am lu mel ni. looy looy xelmati. ne buñ ko dànkul rek. bu yegsee dana bari lu muy yàq. sallallahu alayhi wa sallam noonu ittaqu firaasatal mu'min. loolu léegi nag yenn saa yi ngay gis yu nga xamante ni bii xam eh, da ngay gis toggkat dëgg gisee kuy togg am na lu muy sóoree. am na lu muy xe lu koy xeeñ dana am lu mu wax ne soo deful nangam sa cin li fii lay jëm. cin su naree neex su baxee xeeñ. ok yu mel noonu. Mhm. loolu moo tax rek ñuy alerter. Mhm. parce que dafa am nga xamante ni bii li leen yitteel. Mhm. du jàmmi askan wi. waxin la. du jàmmi askan wi li leen yitteel mooy ñoom nañu na tey jag mais dafa am ko tey dafa war a jag. suba jag ginnaaw suba jag mhm. loolu tax rek ñuy ñuy ñuy ñuy fàttali mhm. euh, su ko defee mhm. loolu nag euh, ñoo ko bokk nun ñëpp kenn ku ci nekk daal foo toog nga jàpp ni aw ma droit mu yàqoo ci sama loxo macha aw ma droit mu yàqoo ci sama loxo naa ko ñoŋal ba ñeneen ñëw ma teg ko ci seen loxo ci anam bu gën a rafet euh, wax naa benn bis ma ni Seyda ma ni dafa am koo xamante ni kii dañ ngay tuddee laaxiq mhm. laaxiq mhm. ak koo xam ne dañ koy tuddee maaxiq mhm. ak koo xam ne dañ koy tuddee saabiq laaxiq mooy koo xamante ni moom li fi bàyyam bàyyi woon tiitaroo ko rek la ci def fu mu dem taxaw danaan mën a doomu diw mais liggéeyulul ci li diw doon liggéey tuus xam nga ni kooku yokkul. Mhm. te wolof nee na ku yokkul yaa wàññi. Mhm. kon kooku kenn warul konti ci moom parce que moom laaxiq la. Mhm. yàlla xaqu bi sharafi yi mu am keneen ko xamante ne bii maaxiq la. moom lépp lu fi bàyyam bàyyi woon yàq na ko. bàyyam bu liggéey ba am tur yàq na tur wa. su bàyyam liggéeyee xaalis bu ko fi bàyyee foog ñu jàpp ko ci mu def naka sudul noonu. parce que dafay effacer lu trace bu fi bàyyam bàyyiwoon mi ngi ko effacer. kooku xam nga ni moo gën a yées sax ki ma jëkk a wax. Mhm. mais am koo xamante ni kii mooy saabiq. saabiq nag mooy koo xamante fekk na fi bàyyam góorgóoroon ba yóbbu affaire bi ba jam ñaajo mu direeg moom ba gannaaw ndar. ci yaatal ko jekkal ko defar ko. nit ñi boobu lañu lañu war a la war a xëntewoo te loolu nag doom doomu deret da koy xëntewoo doomu ruux daf koy xëntewoo su ko defee Seyda ñu ñëw ci sunu bind tey incha allah <laughs> jërëjëf Oustaz macha allahu taala euh, am na solo euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa woon ad diinu nasiha mhm. mu ne diine laayante biir rek la ñu ne ko ci lan mu ne ci yàlla ak yonente bi fekk yaa ngi naan xaalallahu xaala rasul macha mm-hmm. allah taala di ci ti biir ñëpp war nañ cee dellu si parce que ñi nga xam ne euh, euh, amul ñu ngi ci jàmm am problème mm-hmm. bu ñu fexee ba nekk ci leneen lu dul jàmm indi problème mm-hmm. dina gën a jaf te defe naa temps yi ñu toll moom ku nekk war naa xinte euh, gën a defaraat sa toogaay dama ciy waxtaan démb rek ak sama benn yaay ma koy nuyu de passage Adja Sagar Sall ak sëram Adja Xadi Sall ma ne ko yaay booy temps yi kuy kuy ku nekk war ngaa defaraat sa kër war ngaa defaraat sa armoire yow ma tub la sara idu fii lay commencé ci àdduna parce que bu boo boo ne xëttat dog rek li ñuy jëkka mooy laajte caabi armoire bi ne dañuy génne sër yi ñu lay war wala bu dee da ngaa mus a dem màkk say armal déjà képp ku accès wul woon ci sa armoire yàlla bu mu nekk say cousine yàlla bu mu mel ni cousine bu mel ni ummu ñang jinnewe ñu daal di dem yëkkati sa yére yëpp commencé liñ liñi say mbir te comme yëf yi moom day ñëw di bette ku nekk na waajal boppam hmm. xam nga liñ doon wax jóg waaj waaj jot na waaj nag fii la jote ndax li nga xam ne ñëw na te kenn xamul fu muy yem ñu waaj ko bu baax moo tax tey oustaz vendredi bi bi ngeen fi nekkulee defoon nañu waxtaanoon nañu tuuti si julli hmm. ndax comme julli gi moom moom la ñuy jëkk a liñ bët moom la ñuy jëkk a seet hmm. te moom mooy li nga xam ne chaque à fois ñu ngi koy def te te yow ci sa bopp sax léegi léeg ngay julli ba si yàgg nga dem ba ci digg bi sax nga gàkk mhm. nga def dara nga gàkk nga ne waaw lii ndax man lii laa waroon a def wala lii il faut nga dawaat dem sa bibliothèque moo tax oustaz dañu xewil bibliothèque ci kër yi waaye mhm. lu ñu war a delloo si mhm. xam nga bu njëkk ba kër goo dem da ngay gis ne boroom kër gi lu mu liggéey bu demee màkk ma ngay jënd téere mel ni imam Samba Diagne yàlla na ko yàlla bàyyi fii euh, ak Cheikh Fall maa ngi leen di nuyu bu baax bu demee màkk imam Samba Diagne kilo yi mu am yëpp ak kilo njaboot ga yëpp ay téere la koy jënd macha man man moo ma inspiré sax si ma bëggaat jënd téere macha allah te bu lay may téere day jël sa oto sol ko ba mu fees ndax mu ngi tabax bibliothèque bu mag xam nga bu njëkk ba gis nga yow ñëw naa sa kër gis naa ne bibliothèque bi lépp a nga fa macha allah te bibliothèque yooyu dañ koo xewi léegi remplacé ko ay fleurs chinois mhm. remplacé ko ay kopp ki kaas këru boroom xam-xam boo demoon da nga fay fekk bibliothèque mais léegi kër borom xam-xam boo dem bibliothèque yi même ñi doon jàng tubaab da nga doon gis ne jàngalekat français yi dañ doon am ay tom yu ñu leen doon jaay di ko lepp la sax mhm. par tranche mhm. mais léegi lépp jigéen ñi changé nañ ko ci ay bibelots ci ay fleurs ci ay yu ñàkk fayda yoo xam ne amalu la benn njëriñ boo si jënd un deux trois mu yàqu ndax dañ leen wax ne leen téere yi dafa bëri mbóot <laughs> waaw day yokk mbóot <laughs> ku mel ni sambaakam su ko defee da ngay tukki rek ñëw fekk sa genn wàll document yëpp ñu lakk ko <laughs> soo waxee ñu ne da ngeen a bëri ay këyit dafa du ma sànni këyit jàngalekat moom xam nga du sànni këyit sama kaye élèves ya ma doon jàngal CM CM2 ba léegi kaye ya am na ci yu ma denc mais su ma ñu ne dañuy def nettoiement oh, général jël yëpp lakk su ma ñëwee di crise fekk yàq na ak photo yi mais xam nga loolu mooy téere yi dafa war a des ci kër yi mm. ndax oustaz ay la yéwén man man de sama sama sama xeex mm-hmm. sama suwe ci àdduna mooy jàngale ba keroog may fekk sama borom alhamdulilah ndax saa yu ma toogee duma ko tey mm-hmm. xam man sama xam-xam sax bëriwul mm-hmm. li ma mokkal bariwul mais su ma gisee kuy julli mm. julli bi doy waar moo xam góor la moo xam jigéen la damay damay yëg ne man man maa tax moom mënul julli ndax war naa ko yenn saa yi ma corriger sax ku ma xamul yenn saa yi ñu ne la jëf yenn saa yi la ne waa ku nekk di ni nga ko déggee nga koy defee yenn saa yi si jëlee lu la neex moo tax toujours damay bëgg ñuy dellu si waat ndax man man sama bopp parce que mun naa ne xanaa quarante ans maa ngi si daara plus di jàng te ba tey nee naa maa ngi toog yenn saa yi ma dem ba ci biir ma gag imaginel que ki nga xam ne kenn jàngalu ko loolu moo taxoon ñu ne semaine bi passée kii bi par thème lañ ko def malheureusement euh, titré wuñ ko ci écran bi waxoon naa ko waa waa régie tey dina am téléphone ndax téléphone yi baax na nit ñi hmm. bokk ndax àdduna partout waa yarax yi ku mel ni maire Farmata Wade mu ngi koy réclamer ku mel ni ay Aïda Diop ay Aïda Diop sama xarit boobu ku mel ni bint saar Sarr ndomba àllarba hmm. ñoom nee nañ téléphone yi nee nañ émission bi ñoom da di wéttali hmm. te dañ ciy jàng ci waa Allemagne yi waaw waxuma sax waa extérieur ñooñu ñoom Awa Ba Nant ak Kaw Ibrahima ñoom Binta Diop ñoom ñooñu ñëpp ñoom Awa Ja ñu ngi may wax ne ma ñun lii suñu jàngukaay na hmm. moo tax ñun xeebuñu liñ ciy def mais tey semaine bi xam nga ñu ngi waxoon kay fa na isu Ramadan nan la ñuy dunde weeru koor hmm. moom moo ciy def parce que sama benn doom daf ma ne tata il faut ngeen di titre ndax ci YouTube bi suñu soxlaa dara war koo wéri hmm. dañuy sonn parce que du am titre. moo taxoon ñu waxoon ko waa régie xam naa ñu ngi koy fàttali Vieux Diouf mi nga xam ne ñoom ñooy mooy réyaliser émission bi ñu dimbali ñu ci numéro téléphone yaa ngi nii Assane dina ko liir mm-hmm. mais tey nag dañu bëgg a ñëw ci at attahaara mm-hmm. lu tax oustaz nee nañu euh, euh, nuñ koy waxee répétition la répétition la répétition pédagogique waaw et pédagogique loolu ñun dañ koy xam ndax ñun xam nañ ne saa yu ñu defoon darsul jadid dañ koy rab ak darsul maadi si muqaddima bi maa ngi dellu classe de maa ngi yore crédit ba de ah, def muraaja darsul maadi wa rabtuhu ila darsil jadid su ko defee nga nga fàttali ko mun na nekk par asila ak yu demee noonu nga poser ay question démb nag vendredi passé ma waxtaanoon si julli tënkoon ko baax ñu mu wutal ñu retour bu leer allo man mel na ni kooku de sena ñoo dégg xam naa dañuy ñaan rek koo dugg rek après mu wàññi téléphone mu wàññi télé bi te déglu ci téléphone bi incha allah ñu kii waaw te wax bi fii leer ñu ciy remercier Pape Cissé parce que barki démb bi mu ko déggee rek mhm. daf ne ma lii dinaa taxaw ba pare taxaw encore ne euh, waa commercial ne nañu jox nañu as enveloppe boo xam ne télé téléspectateurs yi war nañ leen a jox tuuti sukkaru koor xam naa as ba lay jar rek njëgu ma waaye ba tey rek ñu ñaan yàlla yàlla yokk ko oustaz tey ma bëgg ñu ñëw ci attaxaara laab ndax laab dafa nekk loo xam ne xewoon na de waaye fi mu nekk moom xewaat na xew gu bees te laab googu xew-xew gu bees euh, coronavirus waral ko nit mën na ci jëlaale tuyaaba mhm. amaale ko ci ci yëreem ndax bu ñu nee laab ci yëre laab itam mooy ah, fi luxa mooy annazafa mhm. mooy set mhm. waaw fuqaha yu nee nañu rafu xadasin aw isalatu najasin mooy nga dindi toj toj walla nga dindi sobe mooy nga yëkkati toj toj loo xam ne yàqoon na comme la ngay dem di raxas mun nga ko def saa yoo war duggee sa kër boo raxasoo ba nga xam ne dindi nga kii bi dindi nga microbe bi ba mu jeex nga profitoo jàppaale mhm. ndaxte tànk bi itam oustaz dafay dem di indi. yére bi nga sol ñu ngi wax ne yére yi tamit bu ñu ñëwee nañ koy weer. loolu tamit dafay am yu si kon ñu gis ne oustaz tey wax dëgg yàlla bëgg nañu daal ñëw ci dañ koy mëmasal nag pour semaine bi nekk rek. ak taxaara ak asala ak tayammum mboolem lu jëm rek ci affaire julli. ak ni ñuy jullee ak ni ñu ko mën a tënkee. ba beneen bële ñu dem ci zakat oustaz zakat nit ñi soxla nañ ko. te coronavirus bi oustaz ñu bëri dañ cee bëgg a jaar. mel ni dañoo fàtte azaka yi ñu doon génne. azaka yi nañ ko génne. ndax azaka yi salaamaaleykum wa rahmatulah. Mhm. waaleykum salaam. yokkal kàddu gi tuuti wala gars yi yokkal nu ko. kan la. ah allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. allo. fa loo tudd ak fan ngay wootee. man Louga laay kàddu gi leerul de ñu régi yi defaral ñu ko kàddu gi leer macha allah allo. waaw dégg bi dégg bi moo sant Sarr xam naa gaa ngi ci gaa yaa ngi ci incha allah. ah man Fall Fall laa sant Awa Fall. Awa Fall. waaw jërëjëf. def soxna Awa. maa ñu ngi lay déglu ñoom Seyda ngi lay déglu ak Oustaz Assane. Ah, dama bëggoon bokk ci waxtaan wi. ayca bismillah yaa ngi ci biir macha allah. ah di kontaan ci émission yi bu baax a baax chaque jour may bëgg dugg waaye xam nga rek réseau bi moo demul noonu. Mm-hmm. fu ma toll rek maa ngi bëgg a dugg ndax waxam naa ne waxtaan daal wax dëgg fa yàlla am na solo allah. Mm-hmm. te ni ngeen defee daal waxtaan daal lépp jaar na allah daal kontaan nañ ci trop. baarakallah. Seyda Fatou Bintou moom sopp naa ko lool lool dëgg fa yàlla sopp naa ko lool chaque jour ma koy mooy a jot daal. war na yàlla soxna Awa maa la foofu. dama laa sopp lool sopp naa lool lool. maa la gën a sopp yaa awa. chaque jour suñu toll liñ mën di seetaan bu commencé duñ naan dama naan leen jàppale leen sax fii laa sax bintu war a lépp commencé. xam naa ne kii dafa faible yaa awa ñu ngi jébbalu de ñu koy yokkal tuuti. waaw waaw waaw xam naa ne ci réseau bi la. réseau bi la xam naa ne. waaw yaa awa bàyyi sa numéro téléphone fële réseau incha allah du ñàkk luñ la yónnee. Ah, waaw waaw waaw tamit xam nga dina ci baax ci faaleen yi. <laughs> parce que ay gune ña ngeen laa yore ma ma ma ma kiyal leen. man nag ci Seyda laay gis kuy maye lu mu jotagul. <laughs> yéen rek bëgg am yaakaar rek am yaakaar rek. ku xam yow ñu digle wax ku ko gis yaakaar ko am yaakaar rek yàlla baax na. war na yàlla war na yàlla oustaz. Eh. <laughs> bu amulee xam naa xam naa yow sa poche bi li si nekk ak poche agent nii loolu laay jël. sama sac bi moom moom un franc moom du ci nekk man moom fi mu nekk coronavirus bi xam naa waaye nag oustaz am na ñu baax nag ñuy yónnee am na ñoo xam ne gis nga waaw waaw waaw léegi ataxaara ci la ñu nekk waaw bismillah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Ah, ñoo ngi leen di ziar bu baax. ñu ngi lay koy delloo bu baax macha allah. di kontaan ci plateau bi. jërëjëf. di kontaan di nuyu yéen waa TFM yëpp parce que heure bu ñu jotee moom nga may yàkkam star TFM pour seetaan leen. Mhm. ah kontaan na jotaay. waaw mhm. ah, mais ah, dama bëggoon laaj wala mën naa laajte wala. ah. ah ma ne nan nan doon nuyu rek nuyu ma sama yaay jooju nga dama kontaan si tool. Seyda dëgg la macha allah. waaw kontaan tool waaw émission yal na jëm kanam. amiin jërëjëf amiin amiin amiin. waaw waaw di ñaan dañu am problème dégg am problème. Euh, waaw ñoom waa ñoom leen waay dimbali ñu waay yokkal ñu leen ñu dégg suñu xarit yi mu dégg-dégg. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ñu xam naa ne kon tuuti la ñu defar waaw ñu defaral ñu ñu ngi jéggalu bu baax. Mm-hmm. oustaz nit euh, du maye lu mu amul waaye man dinaa maye fii tey lu ma amul ndax bu ma ko amee gis nga bërki démb ndaw si nga ñi nga xam ne wane nañ ko muy jël xeer. xeer oustaz lay for pour di ko dundal la ñabootam. loolu profession la léegi waaw jigéen ñi nga xamante ni bii seen tame la jor ak seen saaku waaw di wër fi ñu tuuroon béton yi di ko jël di ko sol ci ay saaku jigéen ñi loolu la ñuy liggéey léegi allahu akbar di ci ba pare di ci fay seen luyaas di ci fay seen jàngu doom di ci fay seen médical loolu jigéen ñi la macha allah moo tax bi bi bi ma ko gisee euh, ñu ne am na ñu réagir mhm. euh, pour wutal ci doom doomu ñu liggéey ma ni ay junni ay junni la ay junni mais doguma la kooku Seyda doguma la mais kooku dafa am ñoo nga xam ne nañ ma jéggal si kàddu gu ñu ñàkk jom ni mu expliqué si télé bi nee na bu dajalee ba am ay saakoom dem ñibbi war a xëy ñëw jaay ko ñu ñëw sàcc ñu ñëw sàcc saaku yi si mag mu ni toll ñooñu xam nga li mag ñi doon wax néeg nañoo dompe néew moom xam nga réew mi tam fi ak fi réew mi tollu maanaam pour wane nii loolu dafa am ñaar yu muy jàngale dafay wane nii am na ñu am jom mm-hmm. pour di dunde seen ñax ndax loolu la leen seen diine sant mais am nañ ñu nga xamante ni ah, am nañ jom pour dundee seen ñaq eh. mais am am na ñoo xamante ni bëggatuñu bëggatuñu toog ñu ngi donné bon exemple mm-hmm. ñu jël ko ko ci ligne bi ba xam salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ok Adja na nga tur bi naka la ak fooy woote ay dëgg mamel ah? mamel waaw bismillah Adja dama rafetlu seen plateau bi rek. Hmm. moo tax sama xol bi sedd ci loolu ma ne xaaral ma woote. macha allah macha allah ndax doon ci man. Hmm. ndax li ngeen di wax amal nañ société bi njariñ. Hmm. yal na leen yàlla sàmm nag aar. amiin yaa rabbal alamin amiin. yàlla may leen sutura àdduna ak àllaaxira ci baax. amiin ak yow ak mboolem jullit ak ñëpp incha allah. ndax sama xol bi dafa sedd ci yéen bu ma leen seetaan rek damay damay damay yëg ngëm ci sama bopp man mii. macha allah. yëg fierté Sénégal yëg fierté ñun ay jullit lañ tamit am na ko fi teewal lislaam mm-hmm. waaye nag maa ngi ñaan yàlla tamit nag yàlla jële fi feebar bi ba ku mën a ba ku bëggoon a laaj tamit mm-hmm. bismillah bu fekkee dañu ànd ak sa jëkkër ba pare mm-hmm. ndax bu ñu salaatoo ba pare fekk sangu boo xëyee suba teel gi mën nga sangu. Mhm. te du yàq dara ci sa koor. Mhm. baax na incha allah. loolu laa bëggoon ngeen leeral ma ko ma leen jaajëfal nag yéen ñëpp. jërëjëf ñu ngi a baax macha waaw léegi joxeel dars bi nga doon joxe ci ci ci taxaara bi. ci laab gis nga sax da ciy dugg moom. ko defee boo jëlee euh, weeru boo jëlee quelques minutes. téléphone cinq minutes ñu développé. su ko defee nga développé tuuti. ñu doog a ñëw ñu ñuy suivre ñëpp am na ñeneen ñu ñuy suivre. Mm-hmm. macha allah ñu leen di bégee bu baax a baax. jërëjëf xam nga lu tax ma ne nañu indiwaat euh, laab laab dafa nekk loo xam ne mooy fondement wu euh, diine l'islam set ndax li nga xam ne lépp looy def ci àdduna ci jaamu yàlla set bi daf koo war a lal maanaa nag dafa am euh, dafay teqalikoo si ñaari xaaj xissiya wa maanawiya euh, taxaara xissiya am na waaye taxaara maanawiya am na loolu nag mooy li nga xam ne day dindi sobe ak li nga xam ne dafay dindi yëg-yëgu doomu aadama ci li ngeen doon wax sànq rek yu demee noonu ci comportement yi laawe raxasaat suñu bopp defaraat suñu bopp euh, xikma bi nga xam ne yàlla borom bi subhanahu wa def na ko ci mooy nit ki dindi lépp luy tilim ci yaramam mhm. ak ci bërëb bi mu nekk waaye mhm. ci digganteem ak doomu aadama yi mhm. parce que am na lu bari bu ko nit dee def wala mu di ko wax wala nee nañu àdduna lu nekk yére la yére bu la jotul waroo koo solal sa morom waaye yëre bu jotul it li nga gëm waroo koo solal ngëm-ngëmu keneen ndax ngëm-ngëm dafa nekk loo xam ne dafa sori ci doomu aadama mhm. moo tax yàlla nañu yàlla dimbali ba yàlla def jàmm te lépp rek ñu teg ko ci nattukaay yi mhm. muy alquranul karim ak mhm. sunna nabawiya sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñun ci la ñuy basé wu ci lépp boo gisee ñu ne ñu ne set dafa am li ñuy wax naan alhadasul asar wal wal akbar dafa am yoo xam ne yu ndaw la. Mhm. ak yu kiy gis nga man dama bëgg téere ba nga xam ne ba léegi civilisé gu ma ci portable yi man téere ba laay gàddu. <laughs> ndax euh, nee nañu. li ndaw si doon laaj rek day ñëw léegi. Mhm. mooy euh, mal farqu bayna xadasil asgar wala xadas al akbar. Mhm. lan moo leen teqale xadasul asgar. mooy li nga xam ne toj-toj yu ndaw yi ak yu mag yi. loolu maa ngi koy jàngal. ndaw jigéen ñi nga xam ne ak góor ñi nga xam ne suñu doom yu ndaw yi ñu xam ko hadasul asgar mooy lépp loo xam ne bu la dalee li lay war mooy njàpp waaye du sangu bi ndaw bi bu la dalee mooy njàpp moo koy tax nga teguwaat ci raay bi waaye du sangu hadasul akbar nag mooy bi nga xam ne bu la dalee sangu mooy tax nga mën caa génnaat mhm. ñu ne nag hadasul akbar boobu juróom benn ngi nii nga xam ne ku mu dal war ngaa xam ne force sangu moo la ci mën a génne bi si njëkk mooy oustaz al iltiqaau xiitaanayin mooy ñaari euh, cëru góor ak cëru jigéen am na fu muy jonjoo sangu rekk mooy tax nga mën a duggaat ci sa jaamu yàlla mm-hmm. mooy ànd boo ànd ak sëy mm-hmm. bu ñuy wax nag liñ ca gën a bëgg mooy ki nga xam ne mu ngi nekk ci buumu sëyam ndax la le moom day daal di xaaraam hmm. day nekk lu méttee métti yàlla na ci yàlla musal njaboot musal ci képp ak ñaareel bi oustaz mooy inzalul mani yi hmm. mooy mani yu bu sotteeku fe am na nag al istisna yu ciy am ca nga xam ne hmm. boobu dinañ ci ñëwaat oustaz nga ciy tontu rek bërki démb hmm. mooy mani yu bu génn mani yu mooy ndox moomu nga xam ne dina génn ci bànneex dina génn ci tiit yenn saa yi ak yeneen mais lu ëpp lu muy génn ci bànneex la ak lan oustaz al mawt dee hmm. bu nit ki deewee il faut que ñu def ko cangaayu set waaye gis ngeen léegi nii feebar yi amee am na fasinine buñ koy defee mais day am foo xam ne dafay yegg sax ba ñu tiimal ko kenn du ko sangu ça dépasse si micro bi ak ña nga xam ne ñoo ca am xam-xam lañ ca wax parce que fi mu nekk indi na polémique ci monde susu ak immigré yi coono biñ ci da bi ñu nekkee ak wane ne feebar bi terewul kenn mu mën a ñu mën la delloo si xam naa loolu oustaz dinañ ci defaat ay waxtaan yu bëree bëree bëree mm. te suñu kilifa diine yi tamit war nañoo génn wax ci loolu mhm. leeralal ci njaboot gi parce que inquiétude la boo xam ne dafa foor ci bakkanu doomu aadama mhm. fekk coono bi ñu ko jox mhm. munoon naa bañ a toll noonu ndax nit ki yaramam am na solo macha allahu taala waaye li ëpp solo mooy ruuxu gi kooku moom directement day dem ci borom bi subhanahu wa taala yàlla na fekk rek mu selloon sell goo xam ne bu demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ ko ko classeel fi ñuy classé Euh, ruuxul euh, anbiya yeeg mursalina yeeg arwaaxul anbiya ak mursalina ak siddiqin ak shuhada yi te itam ñu xam ne woba la boo xam ne képp ku si génn àdduna moo xam dañ laa suul foofu moo xam dañ laa indi fii jëlal ko ci ligne bi en attendant ah. ah, bi kan muy wootee aleykum salaam. waaw. maa ngi leen di bu baax. ñu la koy dalal la ziar macha allah. maa ngi kontaan ci plateau bi di ko rafetlu. alhamdulilah macha allah. seen benn taalibe bu leen topp bu ma leen di woo tey jii. jërëjëf mbokk bi. tur bi nan la. ngeen jégal ma bi rek ndax. ayca bisimilah am nga si sëñ ngi di ziar bu mhm. a baax ci weeru koor bi. dafa mel ni si ñun ba léegi kontaanaguñu suñu son bi de sama gars yi allo. day dagg. dafay dagg daal te wax bi du du kawee fii du mhm. Mhm. kon oustaz ñu profité rek ñu ngi woon ci dee. Mhm. ki dee dañ koo war a sang. bi ci topp mooy alxayd. mooy jigéen joo xam ne da ngaa gis règle. kooku tamit danga ngaa war a sangu bala ngaa duggaat ci sa jaamu yàlla. wala ngay àndaat ak sa boroom kër. loolu tamit lu ñuy leeral la hmm. ne bul ne rek set naa sangu naa njàmpeeg saabu doy na pour ma ànd ak boroom kër gi ma hmm. pare soog a sangu set pour julli hmm. pour ñu xam ne même ànd bi ngay ànd ak boroom kër gi itam bala nga ko mën a def il faut nga sangu set ba pare loolu dinañ ko gën a lettre gën a leeral ak an nifaas an nifaas mooy deretu gësëm mooy ki nga xam ne dafa am doom ak bi bi nga xam ne Euh, waaw mooy mooy deretu anifas mhm. anifas nag teqalikoo na ak alwilaada mhm. parce que deretu nifas mooy mun na nekk mu génn avant ngay kii am na ñoo xam ne avant ñuy wasin dañuy xëpp deret après wasin bi itam wala avortement yi loolu tamit dinañ ko leeral mhm. loolu oustaz mooy juróom benn yi nga xam ne su ñëwee si yow wala ñu ne ki nga xam ne itam dafa dugg ci lislaam ki dugg ci lislaam itam comme dafa nekkoon koo xam ne sobe la woon ndax innamal na najisun nee nañu ñi doon bokkaale yàlla yépp dañ leen di jël reconnaître leen comme ñu nekkoon ci sobe ndax yaa ngi doon xëj na di am janaaba doo sangu yaa ngi doon gis règle wala bu dee góor la muy janaaba wala jigéen ndax janaaba góor ak jigéen na ko bokk yooyu yëpp nag day tax nag léegi nag boo nee damay dugg ci lislaam il faut nga sangu oustaz mm. yii daal mooy yi nga xam ne mm. moom la ñu tënkoon mm. ci ñi nga xam ne ah macha allahu taala ñu ne nag bu dee xale la boo xam ne moom xale la buy dugg ci lislaam kooku nee nañu jarul sax moom muy sangu bu sanguwulee itam wàññiwul dara ndax toggagul jëf amul janaaba amul kii waaye bëgg nañ ci mustahabaat yi lay dugg waaye du nekk waajib comme ni mu nekk waajib ci ki nga xam ne muskàllaf la oustaz macha allah macha allah am na solo si euh, muqaddima bi maanaam introduction bi ak leeral yi nga xamante ni Seyda def na ko ak ni nga xamante ni pédagogie comme ni mu ko waxee bi nga xamante ni moom la utiliser ngir mën a jox téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp si wareefu Ramadan nga xam ne comme ni ñu ko waxee si bande annonce bi émission la ba nga xam ne toujours li ñu fiy indi rek mooy nu diina ji di gën a yéwén si ñi nga xamante ni fa tabarakallahu macha allah ñoo koy topp ak di ko seetaan ak di ko bàyyi xel ndax ku nekk xam na ne lislaam amul dara la nga xamante ni da nga koy def lu dul ne dafa wéeru si ay texte bàyyi ko si alquran sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala si ijma wala si qiyaas nga xamante ni yooyu mooy yi nga xam ne si la jullit war a tënku ngir mën a woyal diineem tey tomb bi ñu fi indi moo di laab nga xamante ni am na jaamu yàlla yi nga xamante ni si lislaam nit mënu ko def te amul ak laab set ak laab nag bokkul man mën naa tilim ma dem sangu ba set fekk aw ma jana ba set naa waaye su ma bëggee laab bu fekkente ne comme ni ko daa waxee dama am alxadatul akbar faaw ma sangu jana ba bu fekkente ne alxadasu asgar laa am maanaam bu ndaw bi toj tojtal bu ndaw bi <coughs> faaw ma jàpp su ma mënul jàpp faaw ma tiim ngir mën a làpp bu fekkee ne dama bëgg a jàngi alquran ma jàngi alquran bu fekkee ne dama bëgg julli ji ma julli ji bu fekkee ne dama bëgg def xeetu jaamu yàlla ba nga xamante nii mënu ko def te àndul ak laab faaw ma jana ba wala ma bu dee janaba la sangu janaba la <coughs> bu dee njàpp la laaj faaw ma jàpp bu dee aw ma fu ma jàppee wala condition yi pour ma jàpp réunirul te xëy na jàmp na ma mën a daal di def li nga xamante ni moom moo di tiim li ma si bëgg a wax rek mooy njàpp wala laab si boppam dafa nekk la nga xamante nii day setal doomu aadama bi si biir ak si biti ndax ku ne xam na ne lislaam moom xol daf ko war a laabal jullit bi saa su nekk dafa war a laabal xolam si kañaan dafa war a laabal xolam si soxor dafa war a laabal xolam si yéene moroomu doomu aadamaam waxuma sax jullit mais doomu aadamaam la nga xamante ni sofaan la ndax alxalqu kulluhum iyaalullah bindeef yëpp njabootu borom bi lañ subhaanahu wa taala boo weesoo laabal sa xol bi ngay laabal ba mu set wecc si yiñ fi wax yëpp ak ñaawteef yooyu yëpp nga daal dee laabal li nga xam ne moom moo di sa yaram Seyda junju na ko ak ñu ngi si jamonoy coronavirus saa yoo duggee sa kër yaa ngi raxasu Seyda jox nañu gel léegi soo génne ñëwaat yaa ngi raxasu yaa ngi masque wu yaa ngi protégé wu l'islam nag ba mu la waxee ngay laab utiliser ndox. seetal kooku. salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. baaful bi dafa mel ni dafa am problème wala mu kii buñ ko mënee xool donc dama doon wax ne nga xam ne yi ñuy def nii yëpp pour xeex jàngoro ji nga xam moo di coronavirus bi ak geste barrière yëpp boo xoolee l'islam jàngale woon na ko si ndax balaa ngay jàpp booy jàpp di nga raxas sa ay loxo. te dañ lay wax naan raxasal say loxo fii ñu ne la protégel sa gémmañ lislaam dana raxasloo sa gémmañ dindi loola microbe yi nekk sa bakkan nga raxas sa kar sa xar kanam ndax nee nañ la bi sa bakkan bi lay jaar wala si gémmiñ gi wala si bët yi boo paree raxas sa loxo maanaam lépp la nga xamante ni ak cet la lislaam jàngal na la ko laata yépp di ñëw kon sañ nañ wax ne yu si bëri buñ sañul wax lépp ñu ngi ko copier si njàngalem sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko jox li nga xamante ni nekka la ñuy laabee su ma juumul boo demee si suratul ida fa la nekk su ma juumul kon loolu liñ siy jànge mooy diina ji ñu bokk diine cet la d'abord l'islam moom boo si bokkee faw nga set te nee nañ la jàngoro ji faw nga pour nga xeex ko faw nga set kon l'islam dafa nekk la nga xamante ni indi na solution yi bu yàgg yàgg yàgg yàgg xam nga léeg-léeg damay dégg am ñu naan waa l'islam c'est un projet de société nangam ma ne déedéet projet mooy lu yeggagul oustaz Mor fu sa projet bi toll wala yaa Seyda nga ne maa ngi si nàngam wala si nangam mais damay wax naan alquran modèle de société la dafa pare ñu teg ko si table bi ñu war ko jël appliquer ko si anam ba nga xamante nii moom la gëne ndax balaa nga na naam ne fa nit boo setul doo mën a laab te boo setul gooma nga am wér gu yaram bi war te boo amul wér-gu-yaram am na xeetu jàmm yàlla ya nga xamante ne ni doo ko mën a defa si anam ba nga xamante ni noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ak suñu borom si alquranul karim oustaz tabaarakallah macha allah defe naa bu doon dañ doon taarif laab mhm. di ko jéem a définir mhm. euh, mel na ni léegi nit ñi xam nañu lan mooy laab mhm. bu nee laab rek ndekete ñaar la du benn selon li ngeen ñu jàngal nekkati ñaar la du benn laab bi nga xamante ni bii moom la nit ki di laabu baatu laabu mooy jël ndox mbaa lu mën a remplacer ndox mu def ko ci yaramam la nekkoon taq-taq ci yaramam mu dindi ko loolu la ñuy tuddee laabu baatu laab bi yaa ngay dégg ci biir macha bu ko kenn jàpp rek ne dugg ci satala bi rek jël ndox def ci sa suufu awra loolu mais laabu bi mooy li nga la taxoon nga raxas ko kon ndekete laab gaa ngi noonu mais am na ndekete beneen laab boo xamante ni bi tudd ngeen ko mooy euh, coxor ki ñaan siis naqari deret ndekete yooyu tamit dañ ko war a laabal maa bii moom xam nañ dañ koy dindi ba pare bii xam na lañ koy dindi mooy bi nga taqee sa njàpp toj nee ngeen da ngay wuti ndox wala nga wuti suuf bi nga amee janaba wala bi nga amee bi nit ki génnee àdduna wala yooyu nee ngeen ndox la ñuy uti pour laabal ko mais bële nga xamante ni bii yeneen comportement yi la yeneen jukko yu ñaaw yi la boobu tamit dañ koy laabal mooy tax bii am fu mu tegu yooyu nuñ koy laabale oustaz waaw euh, bokk na ci li ci jëkk mhm. mooy seet jël sa bët jël sa bët mhm. teg ko ci ñaari tànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël sa ñaari nopp teg ko ci gémmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa su fekkee baaxe yàlla baaxewu la loolu mhm. nga seet ki yàlla baaxee mu xam loolu nga jël sa ñaari bët teg ci moom ak sa ñaari nopp teg ci moom mu koy defee na ko yonent bi doon sallallahu alayhi wa sallam doon defee di ko waxee na mu ko doon waxee nga toppandoo ko ndax li mu toppandoo yonent bi. sallallahu alayhi wa loolu mooy wa yaqtadi bil muttabiin. macha allah. li njëkk li. mooy ittibaauhu. topp ko waaw bu la rëccee nag. sallallahu alayhi wa sallam iqtidaau man iqtada bi. nga roy si kuy roy si moom. waaw loolu mooy. mooy li ci gën a gaaw pour dindi la loolu eh, mais nag ki la koy jàngal na la koy jàngal ci façon bu nga xam ne du la jommal du la jommal na la ko jàngal bu mu la dul jommal parce que li ma tuddee jommale mooy ki la koy def mu nekk feu d'artifice nga xamante ne fi nga toogee fi nga koy sentir boo fa jógee fàtte ko am na solo xam nga li ma bëgg a wax bu baax a baax par exemple boo ma bëggee jàngal ne ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan baalaate mhm. nga jàngale ma ko ci façon bu nga xam damay jàpp ne lii moom rek moo ko man keneen mënu ko dana ma yéem moom gestam bi mais du ma ci mën a roy parce que ni nga ma ko joxe moo tax mënu ma koo toppandoo parce que danga ma ko danga ma jommal bi nga ma koy danga ma ko jommal danga ma jommal ba pare jombale ma ko jombal ba pare jombale ma ko. waaw parce que da nga ma ne lii moom rekk ko man te li mu def ni mu ko mënee noonu la yàlla baaxee ñu man la ñu tollool noonu. macha masal. waa ji fekk na ko jël jaasi tiim ko. Mhm. ne ko noo mën def rëcc. donc suñu àdduna bi mooy ku la ñëw braquer la arme. Mhm. bu dee fii dañ naan la am nga légitime défense. Mhm. soo nangoo arme bi soo ko reyee nangam sàngam parce que légitime défense bi ku la bëggoon rey nga rey ko dara newu ci xam nga lañ la koy jàngal fii mais yonent bi saa sallam dañ la ko jàngaloon di dafa jekku waa ji jël ngànnaay li jekku hmm. ji te baal ko hmm. baal gam ko baal yamu ca da ko delloowaat ngànnaayam loru ko ñu wan la loolu lu mën a nekk la parce que la mu juralaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy l'islam dolleeku waat na ca mbooloo macha ñu wan la ni am na ko ko doon def di ko lor. Mhm. di def ay salte ci wetam. Mhm. ba mu déggee ni kooku jagadi na neewul ñaw dafa dem seeti ko parce que kooku feebar na te feebar bu ñu mën a seeti la mu dem seeti ko yóbbaaleel ko teraanga kooku ni ko li ma la def lépp nga defal ma lii man ak sama njaboot tey la ñuy nekk sa njaboot. macha yooyu boo koy wan nit ki da koy wan ne ko loo mën a def ak sa dëkkandoo la. Mhm. loo mën na def ak sa dëkkandoo la. Mhm. loolu façon boobu laa wax ne ñu koy wane njaboot yi. Mhm. wan leen ni baale. Mhm. toléré jéggale. jéllale. Euh, ñàkk soxor yooyu yëpp mën nañ ko mën nañ ko am mais ñu seet ki nga xamante ne bii daf koy def nettali woon naa benn bis El Hadj Assane foofu lay ñëw jox Seyda kàddu bi. dañu wax ne ñaari xale yi daara yi. ñaari xale nekk ci daara ji. bi nekkee ci daara ji. Mhm. benn moroom ji ne moroom ji. Mhm. bu ma deewee daal. Mhm. feebar naa ba ñàkk naa ñor ci sama bopp. mooy su ma faatoo daal sama sëriñ bii bu ma sàng bu ma sang bu ma jullee. parce alors comme loolu yàlla sunu borom may na nit ki mu joxe ndénkaane ci boppam. te ndénkaane bi sunu borom dafa bëgg ñu respecté ko. te sëriñ bi moom mooy boroom dëkk bi mooy imam bi moo leen jàngal. bi kii faatoo rek sëriñ bi ñëw waaxu ñëw bëkki ki ne ah kii nag dénkaan woon na boppam. lii la waxoon nañ ko ko defal. te man la ko santoon pour ma def ko. macha allah nee na naa ko sàng naa ko sang naa ko sàng naa ko jullee naa ko yoor ci pax mi. sëriñ bi daa ne kon baax na parce que aaya alquran ba moo ko njat fa man baddalahu baada ma samiaahu fa innama ismu ala alladina kii ci ligne bi te ñëwaat macha allah salaamaaleykum macha allah asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa mi ngi lay dégg Seyda maa ngi lay dégg soxna si Faat Bintu waaw yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir ay waay damaa kontaan ba xaw ma lan laa war a wax sax ñoo gën a kontaan bisimilah. maa woote bi billaay mosuma woote émission waaye damaa jéem jéem ba sonn mënuma la. wallaay wallaay ñoo ngi jéggulu de ñoo ngi jéggulu bu baax. man de yaay sama man de yaay sama yaay sama yaay Seyda man si yooraay jàngee de. ndeysaan wallaay ndeysaan. macha allah mag laa de damaa jàngut na waaye si jàngale daal si laay jàngale te te te sama julli gi. wallaay ndeysaan yàlla ko yàlla nangu. amiin la lool sama xol bi yàlla ko wallaay. wallaay noo tudd yaay booy. man maa ngi tudd Yacine Diaw di woote Kër Massar. Kër nan la nga wax man nag. tur bi maa ngi tudd Yacine Diaw di woote. Yacine Diaw Yacine Diaw Kër waaw waaw eh, ki am ki njaween la de. <laughs> Oustaz Assane Seck ngi day tooñ de sekkeen bi. surtout Assane Oustaz Assane ah, ngi nekk eh, eh, dama dama leen di déglu bu baax. macha allah macha allah wallaay ndeysaan. surtout li joxe suba si nii si kii man ku bëgg ku bëgg Youssou Ndour laa depuis may xale ba léegi moom moom mooy sama mooy sama fan si. wallaay ndeysaan. xale yi dañ may reesaan ma bu ñu jàppee beneen bu ma ñëwee jàpp TFM ñu ne yaa yow mu ma leen télé maa ko moom TFM rek laa si jàpp. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. wallaay la si laa damaa kontaan ba xaw ma sax laa laa. ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan. dëgg naa lool lool lool ci si yéen wallaay. wallaay ñoo gën a bëgg ci yoon Adja Yacine ah su ma mënoon am seen soxna Fatou Bintou dina ma doon neex de wax dëgg yàlla lu bëri xam naa ko yow yaa tax ma xam ko. wallaay ndeysaan sant yàlla sant yàlla bul coupé billet dina la ko jox xam naa ne itam ndogu yi bu ah. ñëwee dinaa la woo Sass <laughs> moom nag nee na ma <laughs> ndogu yi ngay maye te gisagoo ko <laughs> waaye ndogu yi moom bi sa tur rek bàyyi fi xam naa ne moom ñu bëree ngi may dégg te dinañ joxe bu soobee yàlla xam naa ñoom madame madame Ngom na tam mbay mu may dégg. ñoom ñëpp dinañ joxe ndogu. am na itam daaw xale yu ma mayoon ay pañe waaw te te te te bu soobee yàlla ñoom ñëpp nee nañu euh, mm. dina dinañ ñëw aja euh, euh, juma jeng jaxate nee na alxames lay commencé moom it moom it mu leen di nuyu nee na dafa kontaan si yéen jëlal ki ci ligne après waaw waaw juma jeng jaxate ñu ngi ziar bu baax waa bismillah yaa boy Mbayang Samb la Mbour. soxna Mbayang na def. ñoo ngi fi. ñu ngi suñu mbokk yi nekk Mbour yëpp sopp yëpp ñu leen di nuyu macha allah. ñoo waaw waaw kontaan rek ci yéen. bisimilah Adja waaw. da déglu ci téléphone bi rek bañ a déglu télé bi. waaw maa leen di déglu nii. kontaan macha allah di waxtaane yëpp. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu Adja. bilaay. yaa ñoo koy sant di ko gërëm ndax ñi nga jàngee ci moom lu bari. alhamdulilah bëggoon naa koo jot nag. waaw waaw léegi bu soobee yàlla kii vie dina la jox sama numéro téléphone. waaw waaw <laughs> yow fan nga dëkk si mbuur man waa mbuur la onkaat laa dëkk ci. onkaat ah yow soriyantoo wuñu man maa ngi dëkk ci booru stade bi. wax nga dëgg watu kër Caroline Faye. ak digganteem ak kër Doudou Gueye Diarra saan kooku sama mbokk buur la <laughs> maa ngi koy ah, dama koy joxe màkk amul waaye dinaa ko joxe. waaw <laughs> da joxe na fu numéro <laughs> waaye waaye nag bu ma kenn à partir vingt 22h bu ñu ma woo ba 6h du matin loolu rek laa leen di ñaan. da ngay couvre feu. waaw damay couvre feu. Adja Ngone maa ngi koy nuyu bu baax moom it suñu mbokk waalo la oustaz yaa ngi woon fu am solo. dégg euh, bi comme góor ay alxuraan ko tënk. waaw. fa man baddalahu baada ma samiaahu fa innama ithmuhu ala alladina yubaddiluunahu allahu akbar allahu akbar xam nga eh, jullit mm-hmm. fu ko alxuraan dabe rek du du wax mais. moo tax gis nga oustaz. neexul ba neexul waaye gëm yàlla rek a neex. moom rek a neex mu noppalee. wa maa kaana li mu'minin wala mu'minatin idaa qadaa Allaahu wa rasuluhu amran an yakuuna lahumul xiyaratu min amrihim léegi nag bi bi bi bi ka bi mu xamee loolu. kii ne ko man lañ jox dénkaani bi. moom taalibe bi. waaw man la man lañu dénk ne naa def affaire bi. mu ne kon nag defal li ngay def. defal waaw. mu def li muy def. sang moromam bi sang ko. jullee ko. dugg ci pax bi nangu ko. denc ko ñu ñëw ci biir kër pax mi nangu. cay hmm? dugg ci pax mi nangu. mooy affaire bi de. Alaaji Njaga Sekk dama ko mos a dégg mu ne dafa am kenn ku nekkoon ngaay ku daan wax ne. Hmm. cay bañ rëbb ba dëpp. ku nekk pexeem mais ku nekk paxam. ku nekk pexeem. waaw mais ku nekk paxam. waaye ku nekk ak paxam. waaw. acca léegi nag euh, dars yooyu dafa am solo. dafa am yoo xam ne doo ko fekk ci bi bi ñu ramee ba ñëw nag ci kër gi. góor gi ñëw rek ak naqari deret bi comme moo daan jiite moo daan defar yëpp tey jii am na ko def place am te jox ko ci ndigal. Mhm. mu ñëw dugg ci néeg bi rek woo taalibe bi kaay mu ñëw mu ne kii li mu def naka la ko mën defee. Mhm. man maa koy maa fii lii maa fii lii maa fii lii di lim ay ndomb tànk yi ma am ci penc bi. li ma lim ba pare. ne ko xanaa war na laa wax nag lu tax war na laa wax. lu tax mu jéggi ma fi ñëw ci yow. Mhm. mu ne ko waaw wax na ma ko. mu ne ko lan la la wax mu ne ko nee na dafa seetlu ni. Mhm. yaa ko yar booba xale bu tuuti la ba mu toll nii mu toll. Mhm. mosoo jàppanteeg nit ba baal ko. allahu akbar seetlu. te moom fi mu jëm dafa soxla ku ko baalul ñu baal ko te ku dul baalul ku dul baale kenn du la baal te moom dafa bëgg ñu baal ko. moo tax mu jéggi la fi deful avocat. te yaa ko yor ba mu toll nii. mais seetlu la ne ma soo jàppante ak nit ba jéggal ko baal ko. ba jéggal ko te moom fi mu jëm dafa bëgg ñu baal ko. oustaz. Euh, man laa yarham. laa yarham laa yarham. ku dul yërëm irhamu man fil ard. yarhamukum man fis sama yërëm leen ñu yërëm leen jël ki ci limite ñëwaat ci. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. soxna si. Kine Rasoul. allo. allo. salaamaaleykum. allo. waaleykum salaam. soxna si tur bi naka la. man la Kiné Rasoul. Kiné Rasoul noo sant. Saar. ah. Saar Saar. Saar. yow Oustaz Mor laa lay bàyyil. li nga ne Saar def sama koñ ba ni ma ko wax mukk fii tey. ëpp naa def. loolu moom Kiné. Saar na def. maa ngi am na benn Kiné Sarr de bu nekk ca États-Unis d'Amérique moom tamit yenn saa yi day naqatu di naan rek yow baa doo làqatu di naan koor gi. koor gaa ngi nii. <laughs> ok Kiné ayca Tata Fat Bintu mi ngi lay dégg. Tata Fat Bintu naa la. wóor na yàlla maa la raw mille fois junni. Eh, wallahi ni ma la bëggee dafa ëpp sax. ah man it bëgg naa la soxna Kiné yow sama turandoo nga. <laughs> maa ngi tudd Kine Rasul bi wootee Pikine. ndeysaan macha allah. Pikine léegi. foo dëkk Kine. Pikine pikin ah xanaa yow si njabootu Alimatu Camara ñoom nga bokk ak ñoom Fatou Kane. waaw Fatou Kane waaw. Fatou Kane sama sama rakk ju baax jooju madame Aw. mooy defal suñu conférence yi. dëgg la dëgg la. namu naa leen. ñoo la raw ñoo la raw jërëjëf kontaan nañu naka nga def ak daara ji yaa ngi góorgóorlu. waaw maa ngi góorgóorlu ci daara ji. léegi yow ban classe ngay def ren. non non parce que nekk par kii bi nga toll registre bi nga toll ñu ngi jàng ba Abassa. Abassa Abassa macha allah. Mm. kon yow xàmmee nga Abassa wata wala lan moo taxoon mu wàcc. incha allah xàmmee naa koy. ah yow il faut que ñu invité la fii de nga ñëw wax ko ba mu leer. incha allah. kontaan nañu trop awa. yal na la yàlla fay bu ñu fàtte si ñaan naka koor gi foofu. koor noo def ak leçon bi ñu dugal tey ab taxaara loo ñu ci mën a yokkal. laaj ah macha allah kontaan nañu si émission bi. Mhm. tamit yeete. di ñaan yàlla yàlla musal ñu si mbas bi. amin amin ak yow ak sa parents yépp bilaay kontaan naa trop trop dama man maa gën a kontaan euh, soxna ki ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. <laughs> léegi après mën naa am sa numéro. bi amul benn problème vie dina la ko jox léegi. ndeysaan macha allahu taala Kiné Rasoul xam nga tur bi neex na. waaw xam nga ñu ngi nuyu suñu yaay Adja Kiné Fatou. ndeysaan si bu Cheikh Ahmed bu sëñ Mansour Sarr. sama sama sœur bu sama sama mag jooju nga xam ne moo ma yar dama faa gëj ba rusati faa dem ñemewumaa dem <laughs> su dee Fatou Kébé ay di jita waxee man leen kinne Fatou moom ñemeetuma kaa seet ko xamee woon waaw ci gaaw ci yëpp ba léegi tabaarkalla ba sànq ba léegi ba léegi Serigne Mansour Sarr bu baax a baax. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan Serigne Mansour Sarr wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi si Malick. oustaz boo boo waxatee Serigne Mansour Sarr des teg bu Cheikh bu Serigne Cheikh Ahmed Tijani. waaw radiyallahu anhu waaw euh, xam nga euh, wolof nee na lu lu lu lu géwël bi wax ci béy bi rek dañuy jàpp ne der bi. der bi wax si der bu de wax si der bu. béy bi der béy bu feebar ñu ne der ba tax. waaw dëgg la fekk ne suñu borom moo ko def muy ku ku ku baax. macha man du loolu du sama façon. xam naa xam naa xam naa. waaw mais mais damay bëgg aussi di di. wa shahida shahidu min damay léeg-léeg dama koy wax sama waa kër yi dama leen sama waa kër yi dama leen di wax ne. Mhm. man li ma gën a contre mooy kuy gërëm sa jabar fekk dafa tëdd. fekk dafa tëdd. ci buntu nga bàyyi ba mu génn àdduna yàlla incha allah man loolu la gën a kont. incha allah man dama bëgg nit ki suy def lu baax ñu koy wax ne ko dinga def lu baax. Mhm. yaa ngi def lu baax. ndax lu tax mooy am am na ku ko. ku ku buggul woon def loolu bu gisee ñu tagg ko dana def lu baax. te bu àdduna bu ñëpp defee lu baax lu baax rek kay am. dëgg la mais Serigne Mansour Sarr ku baax la. macha allah. daan na ko yàlla muy mën na ko seedeel loolu am solo parce que oustaz dafa am solo comme li nga doon wax rek ñu ngi ba tey ci darsa sa taxaara bi laab bi nga indi laabu jikko xam nga jikko dafa am solo ndax jikko innamal umamu al axlaaqu ma baqiyat fa innahu zahabat axlaaqu zahabu nee nañu bu ñuy wax gi xeet yi di leen nettali di wax jikko yaa tax mm-hmm. reeru daaw yi bu ñu leen di nettali coos soos yaa tax mm-hmm. waaye bu doon cere ja kese mm-hmm. mook cere ren a benn dëgg la dëgg la moom euh, sëriñ bi ni nga wax ne du baale wallahi azim man wax naa sama njaboot ne leen bu ma génnee àdduna yal na yéex yal na yéex am na ñoo xam ne bëgguma ñu jullee ma yal na bëgg akbar man wax naa ko sama njaboot man ne bu ma génnee àdduna am na nangam nangam nangam buñ ma jullee parce que oustaz Seyda baal ma ma def benn mis benn kii diggéen jour dafa am benn jigéen mu ñëw sama kër mu ne ma su ma génnee àdduna diw bu mu bokk ci ñu may sang bokk ci ñi may sang ma laaj ka lan moo tax mu ne ma dama nemmeeku ci moom ak coxor allahu akbar allahu akbar te yu gën a bon la bokk yàlla nañ ci yàlla musal donc moo tax lu ñu mën ci baax baax nañ ko jéem mm-hmm. oustaz gis nga sànq rek bi may liir maa ngi liir benn xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi wax ne ëllëg ñiy dem safara bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen di gis safara ñëpp tiit ñu ne waa ñii lan moo leen fi indi pourtant àdduna ñoom ñoo nekkoon nangam nangam nangam nangam yàlla ne laaj leen ko ko mu ngi noon di wër mel ni mbaam bu nekk ci euh, takkukaayam ñu laaj ko ñu ne ko yow yow diw yow nangam nangam diw ma nekkoon àdduna di ñu wax lii ci yàlla lii ci yonent bi lii ci nit ñu baax ñi lan moo la indi fii ñun kàccoor yi nga xam ne ñun xamoon nañ ne ñun fii lañ jëm. mu ne leen kuntu amurukum bil maarufi wala aatihi wa anhaakum anil munkari wa aatihi yàlla nañ ci wa musal yàlla nañ ci yàlla musal li ma taquluuna maa laa tafaaluun kabura maqtan kabura waaw ndax nee na lépp lu ma leen mës a sant ci lu baax bu ma wéetee nekkuma ci lépp lu ma leen mës a tere ci laay nekk oustaz dafa bokk si nit ki war naa jomba toog ci waxtaanu diine wala lu mënti doon mu nekk ko te ku ñëw këram xam ne lii muy wax nit ñi bokkul ak li muy dundal kooku de nit war na koo moytu mm-hmm. sa njaboot ci boppam duñ la nawloo mm-hmm. parce que dinañ la ne lii de lii de lii de lii de lii de doo ko jàngale sa télé ba wala lii de doo ko jàngale ca conférence bi wala lii de doo ko def moo tax euh, bu yàlla ne innama yaxsha allahu min ibadihi al ulama mm-hmm. loolu dafa am fu muy teg te mhm. macha allahu taala yow moom bu ci wax dara ndax ba ñu ñëwee ba nga jëlee suñu Mouhamadul Moustapha sama càmme ñu bopp loolu loolu doy na man dem naa fa macha allah taala may nuyu waa kër ga yëpp sama séddoo ya fa nekk macha allah ñëpp sama séddoo la nag mais nag am naa sama ay xaritu bopp <laughs> oustaz ma ne sama waa kër am na ñoo xam ne bu ma deewee buñ ma jullee xaw ma nag maak ñoom kan mooy jiitu mhm. bu yaboo nag ñu nekk lu ñu mun ci nekk mhm. mais ñaan naa yàlla daal ni may jullee nañ ma leen seetal ci nàngam ak nàngam nangam. Mhm. donte ne mbubb ya oyof na waaye doy nañ ma. ndox mhm. na foofu caaxaan dafa amul. xam nga mun nañuy jetante fleur comme ni xew. neexalaatee du ñu wax dëgg dafa am xam ne foo toogee oustaz dangay ngay gëm ne yaa ngi toog ci sa bàmmeel gis nga ñun fii ñu toog. xam nga yow ak Assane ak man yëpp xam nañ ne ci suñu bàmmeel la ñu toog. te xam nañ ne waxtaan wi ñuy def mën naa yegg mën naa bañ a yegg. loolu moom am nga ci yaqin am naa ci yaqin. ku nekk si ñun xam na ne fii ñu toog ku nekk mën nga jékki-jékki rek loos bi ne nii nga yem. ba tax na luñ leen fi wax. te yàlla def na ko ba tey. waaw def na ko ba bu la neexee nga dugg léegi. si internet barki démb rek laa koy nettali. waaw mu ngoog euh, sama benn suñu benn oustaz. moom mu doon jàngal luxa. maa ngi koy nuyu maa ngi maa koy ñaanal yàlla dolli ko. amiin amiin amiin oustaz oustaz Modou euh, dafa génne këram. dem ci jàkka ja jiite gée moo jiite gée gi. allahu akbar. selmal ëlbatiku fa rafaa sama. macha allah yal yàlla may mujj gu rafet. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. pour wax ni. yàlla ni mu gaaw yi ci mbir yi. moo jógee këram ñëw jiite si gee sëlmal gee. jàkkaarloog mbooloo mi loolu mooy ak faatu. fa izaa jaa ajaluhaa. lay sax maanaam pour wane ni yàlla lu lu nekk la gaaw. moo tax moo tax Oustaz jërëjëf ci xissa boobu da ko far di ko di ko indi mais dafa am solo mhm, Oustaz Assane mhm. euh, li may wax foofu rek mhm. mooy ci dar su tey bi ci cet gi ni Oustaz wax ñu setal biir yi bala ñoo setal ci biti parce que xam nga lan moo gën a ñàkk fayda ci àdduna ngay def loo gëmul wala ngay wax loo gëmul mais yaa ngi koy wax rek pour detteel sa mbokkum nit mi nga nekkal mhm. pour yëkkati sa bopp mhm. Mhm. mais yow ñi lay seetaan sax xam nañ ne yow lii ngay wax gëmoo ko yal nañ ci yàlla mu xam nga feebar la feebar la ana wax ji man rek man rek waaw yal nañ ci yàlla mu moom la tubaab bi tuddee égoïsme loolu loolu feebar al ananiya la ko arab yi di wax al ananiya mooy égoïsme feebar yal nañ ci yàlla musal yàlla musal oustaz oustaz Assane dama lay jox léegi mais dama bëgg Euh, ma bàyyee euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci leçon yi mhm. ñu xam yan façon ndox yi nga xam ne mooy yëkkati tilim boobu mhm. bokk na ci ndoxu ndax dañuy jëkkante ak semaine bi ndax semaine bi mhm. dañoo war a dugg ci julli dañoo war a dugg ci tiim maa ul baxri ndoxu géej mën na setal ndoxu taw mën na setal buy taw mën nga cee jàpp mën nga cee sangu géej mën nga cee sangu mën nga cee jàpp ndoxu dex mën nga cee sangu mën nga cee jàpp bu dee dex buy daw la euh, maaul biiri ndoxu teen teen ñun waa Thiès xam nañu teen teenu ba yàlla teen waa baa ngi nuyu waa Concorde yëpp amoon nañ fa teen bu mag ñun ñëpp ci lañ doon roon bu bu ngoonee ñu de Serigne Mbacke Ndiaye fa la doon euh, góoloo fa la doon football ak ñoom Cheikh Oumar Anne ak ñooñu ñëpp ak ñoom Idrissa Seck Seyda bàyyil mat si jàmbur yi ngay génne maa ul ay ni ndoxu bët boo xam ne source bu génn maa mm. u salj glace itam bu demee ba seey mun na julli bu fekkee ne itam kii la mën na tiim kon loolu ndox yooyu ñu dugalaale leen ko ñu yóbbaale ko ñu jox Assane mm. mu mu sof ci li nga xam ne ci la ñu nekk ndax euh, bul bul fàtte oustaz question bi duggoon waaw baax na waaw waaw Seyda jërëjëf mm-hmm. yal na yàlla guddal seen fan. amin amin yaa rabbal aalamiina. taxaara la ñuy waxtaanee. Mhm. ngir laab si biti. Mhm. waaye laabal si biir. Mhm. gis nga li tax ñuy laabal si biti. bu si biir laabul. jarul ngay laabal si biti. ndax boo laabalee si biti ba pare loo la si lan ngay jublu julli. jëlal ki ci ligne bi continuer. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa bi ñu ngi lay ziar. ñuy delloo ziar baax. lay baalu àq leen baal àq gi na ngeen def. baal nañ leen yal nañu yàlla boole jéggal. amiin yaa rabbal alamin tur bi naka la. Euh, li Moustapha Diouf di lañ koy wax. Moustapha waaw foo ñuy woowee. maay bi usine benn tali. usine benn tali. di am mbégte bu baax ci seen émission bi. jërëjëf jërëjëf Diouf jërëjëf. Euh, euh, xamal ne laa moom dafa nekk loo xam ne mënta ñàkk. Mhm. ndax suñu sëriñ ba seexul xadim nee na radiallahu taala wajabat mhm. kon laab li war mhm. ñu mel ni dañ ko ne lu mu war mu ne mu abada ila biha mhm. julli mooy ndey ponk mot mukk bu fekkee laab amul waaye laab nag ñu ci war a bàyyi xel. biir mhm. la xol comme ni ngeen ko waxee. Mhm. macha allah xol mooy li ëpp solo ci doomu aadama. dëgg la. jullit yi bari nañu jullikat yi bari nañu waaye bari waa na kuy julli tey te bu sañoon bu jant sooyee dëkk set. Mhm. ndax am na ku ko iñaane. kon nañu laabal xol yi. alhamdulilah jërëjëf. xol yi waaye di tax nañu fexe booy cat. set ci biir set ci biir mooy set ci xol bi. macha allah mooy set ci suñuy yaram. jërëjëf macha allah. ñu ñu leen di sant bu baax di am mbégte bu baax. jërëjëf Diouf barakallahu fiik. li ngeen di wax ni am na solo trop. Mhm. defal dégg nga xam ne ñu ngi leen di yàlla ñu am ci ak dégg bi. Mhm. ndax it moom mën naa déglu waaye dégg yi moom ci xol lay dem. Mhm, boo déggee dara téye ko fexe jéem ko jëriñoo lu am solo la. ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf Diouf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ndax. allo. barakallah mel ni mel ni dafa dagg. contribution bi am na solo yàlla nañu ko yàlla fayal. Eh, dama doon wax ma ne laab gi ñuy waxtaane laabug biti maanaam boo jàppee ba pare li ñuy xalaat ngir nga def ko mooy nga pour nga mën a julli wala nga mën a jàng ji alquran yooyu bu fekkente ne da nga koy def te laabaloo si biir ba pare moo wax zéro ñoo yam xam naa bu ñëwee si julli dinañ ko wax ndax inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar foofu sëriñ Bay Abdou mm-hmm. suñu sëriñ ñu ngi ko nuyu bu baax di ko ziyaar njool Fuuta li jaaxal mooy mm-hmm. ndax jàkka yi du fees mm-hmm. ñu ne ko ah si Malick mu ne waa dàll yi ci buntu jàkka yi ba ku nekk booy dugg il faut nga dugg sa marakis yóbbaale ko waa dàll yooyu ñu koy jël nag ñii si jàkka ji ah, portable yi ñuy jël ci tafu di ko jël. ci jàkk yi ci morgue yi ak ci ak ci kii. si rob bi macha allahu taala euh, Adja Degen Chimère yàlla na ko yàlla yërëm dolli ko leer fi mu tëdd. keroog maître Babou nee bi ñu koy génnee ci morgue bi di ko dugal ci di ko teg di ko jullee fa la ñu rocc si ñu ëpp keroog foofu la ñu roccee seen portable. c'est vrai xam nga inna salaata tanha anil fahsha wal munkar fu mu nekk foofu gis. kon xol yi il faut ah. xol yi. il faut mu laab ba pare. ñu raxas bu ñu laabalee si biti dem kàbbar jàkkaarloog yàlla ne allahu akbar comme ni ko Seydaa di waxe yàlla ne saltu laaj leen ma jox leen mais bu fekkente ne dafa am la nga xamante nii mu ngi si suñu biir xool yi anime ñu mooy li nga wax yow nit ka nga xamante nii doo jéggale doo jëllale koo jàppanteel moom mooy bàyyi yow doo bàyyi xuloo xiiroo génne lu bon waxalante lu bon waxalante lu ñaaw ba pare yow nga ne julli gi ngay julli am na effet ba nga xamante nii bu positif la si yow kon war nga xoolaat sa bopp xam nga lu tax parce que gis nga oustaz Seyda diina ji amul làmbatu amul naxante ay texte la yàlla nee ne wala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne te dafa am la nga xamante nii yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jàngal nee ne am na benn cër si yaramu doomu aadama ba nga xamante nii bu jagee lépp jag bu sooxee lépp sooxe mooy xool xool ala inna fi ljasadi mudga ida saluxat saluxa aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya al qalb xol mooy doomu aadama mais bu fekkente ne sa xol rafetul yow tey jii nii la ndongo ba def sa sëriñam moom moo yay parce que moom yërmande la yaakaar si yàlla te kii nga xamante nii moom mooy sëriñ bi amul yërmande te yàlla da yow sallallahu alayhi wasallam moo ne ku yërëmaate yàlla du la yërëm kon ku dul yërëmaate yow jarul ngay ñaan sax yërmande te nit ñi il faut ñu xam ne am na lu ëpp solo àdduna bi ñu nekk lii day jeex tàgge nañ fi jaase yàlla na ko yàlla yërëm tuddu na léegi Adja Dégène yàlla na ko yàlla yërëm fàttali nañ ko fi Vincent yàlla ko yàlla yërëm xoolal heure bii daaw bu ma doon ñëw arrêt Faramatane kaaw ni ma doon soññe xool ko ndeysaan ren yàlla na ko yàlla yërëm pare du ma gis kenn ku ma ne sa solo bi rafet biñ ma affecté Diourbel may dem di ah. jàngale ji en 2010 comme professeur mm-hmm. ci euh, CM bu Ngoye ma yoroon fa quatrième ak troisième kii ma wutaloon chambre sama collègue la woon fii laa toog alxames bi passé bi ñu def war ramadan laa ko fàtte ñu tàggee ma ko ñu di ko wax Babacar Sène waa Bambey la sama collègue la woon doon jeune comme man génn àdduna yàlla ko yàlla yërëm daaw rek bi may dem tuuba si soxna Bale sëñ Abdou Karim këram laa jaar si te ouvrière ñu toog waxtaan si koor gi mu présenté ma soxnaam yëpp jënd ko kër macha allah kon maa ngi koy ñaanal yàlla Babacar yàlla xaare ko aljana di ko jaal soxnaam pour wax la ne Seyda mhm. ndaw ñi lay wax surtout parce que loo wax ñu ne avenir u réew ndaw mais il faut ñu am ay valeurs ya nga xamante nii moom la ñuy jéem a sàllool wallahi wa rabbil kaaba yëpp day jeex kañ la fan la naka la est-ce que du léegi est-ce que du suba damay dem keneen day dem keneen day dem keneen day dem kon nañu jekkalaat suñu ay toogaay laabal suñu ay xol lu ñu man fóot ko ba mu weex tal def si eau de javel ak gel antiseptique yi ba mu weex fur te yàlla rekk tax microbe yëpp dañ bu ñu kàbbaree wax allahumma lu ñu ñaan yàlla may ñu ko te lii ma yéene sama bopp ma yéene ko Seyda yéene ko oustaz Mor yéene ko ma Samba yéene ko ma Demba bu ñu ko defee rek lu ñu julli suñu borom subhanahu wa taala daf koy daf koy. tabaarakallah macha allah li ñu dese ci temps barewul daanaka ay ñetti minutes lay toll. Mhm. wante eh, Assane da nga wax lu am solo. Mhm. dafa am benn bis ñu toog di seetaan benn signature contrat. Mhm. maag benn sëriñ ñu ngi toog. ñu koy seetaan ci télé bi am benn mbër bu ne man damay dem kenn du ma téye naka la ko wax daaneel rek ki ma toogal ne ko kenn mënu laa téye ndekete fi kii di waxe wallaay ndeysaan ak fu mu déggee. bu ak sore ak sore allahu ma ni ko waay sëriñ bi kii kenn mënu ko téye mu ne man raaq. waqiila man raaq wal tafati saaqu bi saaq ilaa rabbika yawma idin al-masaaq yu mel noonu maanaam euh, dafa am yoo xam ne dafay dafay mat ah, dafa am langage moom moom lu jar a defaraat kenn du ma téye kenn du ma téye dëgg la bis bu la yàlla woowee kenn du la téye nga ne te gis nga ñun ñëpp Alaaji Asan mhm. ñun ñëpp jot nañu suñu convocation yàgg na keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne wa antum laahiquuna bii ci lañ téye suñu convocation heure bi rek la ñuy xaar. dogguma la yàlla bu leen yàlla Seyda nga ne lan la ñu war a xoolaat. langage bi dafa am benn langage bu génn Jamil soo ma ko mënee may ñu xool ko dafa am tendance bu jóg. ñuy fowee alquran si dëkk bi. te amuñu lu ëpp alquran. Jamil soo ma mënee génneel image bi kii boo xoolee kaamil la yor. kaamil bii mu yor dafa am nu ñuy solo léegi teg kaala gu xonq wala gu ñuul wala gu verte boole kook ay jàllaa léegi kaamil bii ñu yor nii. Mhm. xam nga ñoom nan lañ koy tuddee. Mhm. Ah? Mhm. cof ci. cof ci yor nga jàpp yoroo jàpp wóoruma yàlla xam mais jigéenu jullit bu demee bu yor alquran war na war a mën a muur boppam. jigéenu bu demee bu yor alquran war na am beneen comportement mais sol sa abbaaya bu weex yow xale bu jigéen wala yow xale bu góor kaalawoo sa kaala gu xonq. wala gu verte tendance la bu génn léegi si réew mi si weeru koor gi yor sa ubbi ko ñu tuddee ko. maa wujudi wa bàyyi corona. si koor li ma lay wax cof si lañ ko tuddee cof si te wax nga ko barka démb. qaala ya rabbi inna qawmi ittaxadu hada alqur'ana kay ne ko sama xeet wi dañu dëddu alqur'an ñu ngi koy fawe ñu koy koy caaxaan allahumma la tuaxidna bima faal sallallahu alayhi wa sallam nag waxoon na ne ñii sax jànguñu alquran mais man maay indi xadis boobu rek iqtibaas ko rubba qaari indil quran wal quran yàlla anu bari na ku téye waay alquran alquran di ko rëbb mais cof ci luñ ci jublu cof ci kalima foo foo lu ne la ñuy xewal si réew mi seetaan naa benn waay benn jour muy lim lu ëpp trente fecc yu ñuy kere Sénégal xaw ma cinquante ñaa ngi dégg Sénégal dañuy na yàlla baal du ñëpp mais am na ña nga xamante ni dañu bëgg jël diine yàlla ji ak alquran ji di ko fowee di ko caaxaane dinaa ko waxaat dinaa ko répété ñi war a wax ñu yaakaar leen si diine ngal la bul ci génne sa bopp waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw mais am na ña nga xamante ni jàpp naa ne seen kàddu ñoo gën a jot sama bos yaa ngi dégg ndax am na la nga xamante ni buñ ko yëkkee teg ko si sa maam wala sa maamaat nga gis ku jóg ñaxtu li kulli qatilin naa donc Seyda li cri de cœur la mais jeunes yi ñoo koy def comme man jeune laa may laaye biir li ñu nekkee rek dafa doy ak corona bi di ñaan yàlla jëlee ko fii bu buñ si bëggee yokku leneen du fawee alquran ak waxi yàlla yaakaar naa ne nag xamatuñu fu ñu jëm nañu def très attention si waxu yàlla bi gis nga alquran bi du ay caaxaan al alquran bii waxu suñu borom la te dafa am fu kawe kawee kawee kawe fu suñu borom subhanahu wa taala teg alquranul karim innahu la qawlun karim ma ngi dañoon ba buñ koy teg nii. Mhm. du ñu nangu dara féete ko. sunu kilifa yii gedd nañu seen lal ndax téere alquran di tëdd ci suuf jël téere yi. teg ci Ahmadu Bamba. radiyallahu taala euh, anhu. Mhm. innahu la qur'anun karim. fii kitaabin maknun. laa yamassuhu. illa jeex na. Seyda kàddu gaa ngi Oustaz bala ñëw kii ñu tontu ko question bi dina xëj. rapidement benn minute waaw. mooy kooku nga xam ne dafa ànd ak ba nekk ak doon ànd ak borom këram ba sanguwul mun na jàpp koor koor gi day wér mun na jàpp koor waaye nag li leen di ñaan mooy léegi yeete amatul jafe-jafe ku nekk am nga portable te ku nekk am nga vingt une heure ba quatre heures de demi yaag sa borom kër kon nag na ngeen di góorlu ci di ko def te ba pare bu sedd mukk tere la jóg nga tàngal ndox wala nga nuggal ko nga sangu bala ngaa jàpp koor parce que lu baax lu nekk lu ko gën am waaye du yàq dara ci koor gi waaye nag bu ci abusé wu ba nga xam ne da ngay def lu la neex xaar ba nelaw ba yeewu rek soog a sangu nu ma ko mënee rek loolu mooy fattaqullaha ma stataatum kooku julli daf cee war a jóge mooy mooy xale bu góor bi tëdd tamit digg bëccëg ko weeru koor di nelaw waaw ba gént tamit gént boobu tamit mhm. taxul mu yàqu du yàqu bu dee gént moom kooram du yàqu mais bu dee leneen la lu muy seetaan mhm. wala lu muy déglu wala lu muy liir xam nga am na ko la ko fi laaj defe yow la mhm. woon dinañ si ñëwaat ci suba incha allah bu ñu yàlla mayee fanaan ak jàmm ndox yi nga xamante ni bi waaw ndox yi mm-hmm. wax naa ndox yi léegi dinañu ñëw itam ci liy tax nit ki sangu waaw ñu tàggoo woowaale benn yoon oustaz li may def rek mooy dafa am mbokk yoo xam ne ku mel ni Juma Jeng Jaxate maa ngi koy wax mhm. faate boroom fatiha bu neex boobu ak salaatul fatihi euh, ñu ngi koy ziar kontaan na torop yónnee na nuyoo Assane mi moom mhm. moo ma ko jottali cawlaay itam mhm. ñu ngi koy remercier keroog bi ñu indee ëttu maamam bi nga xam ne tele bi yiw rek la ci la ci jublu ak nit ñi gën a xam télévision bi programme boobu yiw rek lañ ci jublu innamal amalu nag bi niyaat am na ñu bëri ñu ngi koy critiquer di wax mais ñoom télé bi de biñ koy def kër Seydi pour indi waa kër euh, Seydi Ahmadou Bamba pour njaboot gi gën a xam pour ñu gën a xam loolu waaye jubluwuñ ci ci fekkalante mm. nit ñi moo tax ku ñëw mm. na nga xam ne booy ñëw na nga indiwaale euh, garde-fou yi nga xam ne moom la ñu teg ci ci yoon boobu su ko defee oustaz dama am nag sama benn groupe ñoo xam ne Fa Mbow New York euh, mbir mi xam nga ni mu mel Amérique ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen masawu waaye groupe ñoom Tata Yacine Fall ñoom Binta Xuma ñoom madame si ñoom Awa Xuma Ndeye Fatou Cissé Ngone Aminata Mbaye ñii ñëpp ñun ñoo bokkoon benn groupe ci groupe Assalaam ak hmm. Fat Diagne sa jigéen ñoo bokkoon ak Ngone ñoo bokkoon groupe ci ci aj ñoo bokkoon groupe si aj gi macha allah mu nekkoon ànd bu neex a neex a neex ñu leen di nuyu may nuyu nag waa Turel mais nag di jël nuyoo bi yëpp nag teg ko ci loxo sama première dame ku nekk am nga sa première dame béy bu nekk oustaz am na dém man sama déem mooy Marème si bu Tahirou Sarr lu mu dund doyul yàlla na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gi yaram waa soppe na bi nag comme dafa xat damay bàyyi ba suba ma dugal leen eh, sama benn doom ay satuwaat maa ngi lay nuyu di la ziyaar mu xaddi tabaara ak euh, dëkk Parcelles Assainies ay satuwaat yaag sa papa ak sa yaay maa ngi leen di nuyu Aminata Mbaye mm, caani jërëjëf Seyda oustaz man eh, ñaari xalifa eh, eh, xaaral yéen tamit xalifa Mbergane xalifa Mbergane gis mu defal ci yaayam ba léegi ñu koy déglu moom kontaan naa yaayam Adja Ndeye Kumba Dieng Dieng Sall maa ngi lay nuyu di la ziar yàlla na la yàlla fay xam nga yow oustaz Mor Thiam yaa may bàyyi may def lu ma neex ci télé bi <laughs> oustaz Assane jëlal jërëjëf jërëjëf bu baax Seyda macha allah oustaz Mor kontaan am noonu ak ci plateau bi di waxaat rek xale yi nañu góorgóorlu mm-hmm. jàng alquran ndax si anniversaire u alquran la ñu nekk kon dañ ko war a sagal dañ ko war a yitteewoo waaye itam dañu war a fexe ba alquran bëgg si ñun ëllëg mu duñu tiitaroo loolu moom moo ëpp solo ko di def yeneen ziar bu baax comme ni nga ko waxee Adja Thiawlaay ñu ngi koy nuyu di ko ziar ak Mayacine Diop borom AAD ñu ngi koy ziar bu baax moom suñu xarit bu baax la Adja Yuma Aïcha mu ngi yóbbante nuyoo si suba nee na mu ngi ñuy topp saa su nekk Yuma Aïcha ba Philadelphie Amérique. ah waaw xaritu Adja Degen Chimère la moom it. nee na mu ngi ñuy topp saa su nekk sama yaay benn yaay bu nekk HLM tudd Aminata Diop maa ngi koy nuyu. Bamba Fall sa doom maire Medina dem ba wàcce quartier général monsieur le maire maa ngi lay nuyu bu baax. Adja Umu Salamata Tall tamit bi nga tudd léegi ñu ngi koy bàyyi xel eh. Ndumbe Camara sama rakk la nekk Amérique ak yaayam Adja Kolle Mbaas Ndoy ñu ngi nii di nuyu di leen ñaanal yàlla caw caw Ndumbe nuyoo baa ngi noonu donc Babacar Sène bi ma wax maa ngi ah, koy ñaanal yàlla Assane mi nag ëpp ma ko liste sama collègue <laughs> Seyda mënul ñàkk mënul ñàkk maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko gudd fan ak wér. madame Ba madame Ba moo doon wax ne ma yàgg taa diggéen bu ngeen tukkee ba ñëw yore seen. carte bi ziar bu baax xalifa <laughs> Ababacar Sy euh, Mansour xalif général des Tidianes sama papa Serigne Maodo Sy ak waa njaboot gi yëpp di leen jox di daje ëllëg incha allahu taala si beneen wareefu Ramadan incha allah si kanam tuuti quartier général en direct si télévision Futur Média Astou Wini maa ngi lay nuyu ñu ngi bëgg gis nga de sama gars yi moom. ak vie euh, Diouf laaj ko fu mu ayee. seen seen seen àlliwa la ñu yor rek bind ñaari xët. waaye ñu nuyu ñëpp ziar leen euh, kontaan nag la ci jàngale bi kontaan ci intervention yi euh, liñ fi doon waxtaanee am na solo incha allah bu ñu ñëwee ëllëg ak jàmm dinañ ko mottali waaye du ñu tàqali ko te ñaanalante ñu ñaan lii nu nekkee nii. yàlla na ko yàlla jële fii ñu gën a respecté barrières yi waaye di nuyu suñu soppee yëpp ñoom Adja Ngoone Diop di leen nuyu di leen ziar soxna Kiné Diagne ñu nuyu ko ziar ko euh, Adja mi mbeng ñoom tam ñu ngi koy nuyu di ko ziar nuyu suñu bokk ya nekk ci États-Unis ñoom bàjjen Mati nuyu leen nuyu ñi nekk ci biir réew mi ñuy nekk ci Afrique bi ñuy nekk ci Europe bi yëpp ñu ngi leen di nuyu mënuñoo lim ndax ku lim di nga dese. Mhm. waaye ñëpp nuyu nañ leen. Mhm. jox lañ leen suñu loxo xol. ñaanal lañ leen euh, ziar nañ leen baal nañ leen àq baal nañ leen yàlla na nu yàlla nangul. Aminata nuyu naa la bu baax a baax kon ñu ngi joxe daje ëllëg ak jàmm wa salaamu aleykum wa rahmatullahi